هلا من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر kon asalaamaaleykum yéen mbooloo mi yéen waa RTT télé yi gën ci tele bi ca kaw ca kanam ngeen di def lu baax rekk di def lu baax di wax lu baax Ah, rawatina nag Sonia mi liggéey ak yéen depuis ba mu ñëwee ci télévision bi ba léegi RTT bu mu ci ñëwee ba suñ joon yàlla tey ca kaw ngeen ko teg lu mu def émission bu mu def ngeen di noonu la baax apprécier li muy wax ah te du kenn nag yéen la ndax yéen ko jàngal métier mi yéen ko jàngal métier mi ba tubaar fakkaat la tey macha allah lu mu ci am tey ginnaaw yàlla yéen la ak patron bi patron bi surtout gën ko jàppale yéen tamit personnel bi ngeen gën ko jàppale bëgg ko lool nag moom itamit émission bi muy daw lu baax di wax lu neex di wax loo xam ne si ne ne lu ñëpp mën a dégg la te ginnaaw yàlla RTT moo moo tax mu jëm ca kanam ah ñu leen di gërëm nag di leen sant ndax bisu tayam bii hommage day rendre hommage doomu ndeyam doom la sax ci moom ndax magam moo ko jur mook moom ñoo commencé woon di def safar bi ubbi safar bi ba chaque année ñu di ko def ba tey nekk juróom-benneelu at ci safar bi mu di ko def tey mu tey mu dem manqué na ko lool manqué na ñëpp itam ndax demin wi moo gaaw demin wi moo gaaw te xale bi baax di xale bi sëñ Fallou Mbacke te xale bi sëñ Fallou Mbacke xale bu ñëpp bëgg bu daayira bi bëgg soñaa nag hmm, dëgg yàlla taalibu sëñ Saliou Touré la sëñ Saliou Mbène sëñ Saliou Abo ñoom ñëpp ñoo fi nekkoon ñoom ñoo fi nekkoon kenn mënu leen a fay kenn mënu leen a fay rawatina nag yéen ñi ko topp ba suñ jonn yàlla yi tey mënoon ngeen ne dañoo am empêchement mais defu leen ko andi ngeen tele bi taxawu ko ca taxawaayeen bu rafet bu rafet kon tey ji amul lu ñuy def lu dul gërëm leen sant leen te ñaan seen ànd yàgg télé beet raw ci télé yi gën a kawe ci télé yi muy télé RTT. asalaamualeykum maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di sant Serigne Touba Khadim Rasoul di ko sant bu baax di ko gërëm ndax lii xew tey lépp moom la di ko béggee bu baax di sant njabootam. waaye di sant waa kër sëñ Saliou ture di gërëm sëriñ Saliou Touré bu baax ndax lii lépp moom la di leen sant yéen tamit waa télé bi fi teew soxna borom bis bi nga xamante ni di sama rakk moo aaye bis bi bisu safar gi mu di koy def at mu nekk ma di ko ci ñaanal yàlla yàlla may ko ci mu am ci yokkute am ci ngëneel te li muy gis wër ci sëriñ Touba yàlla na dajeeg moom ci barke Seydina Mouhamed ndax it rakk ju baax la mënoon naa taxaw juddu tey di wër ay boîte mais moom yoonu murit rek a ko saf mën naa ni sunu kër gi ñun ñëpp ay murit lañ waaye moo gën a xëcc murit gi kër sëñ Saliou Touré bu ma fa demee tey jii dama fay yaatu lool lool ndax soxna kon nag dañ koy sant bu baax di ko gërëm yéen ñi mu ñëwal si nekk ci seen tele bi di fa liggéey ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen yokkute ba ku seetaanul seen tele bi du jàpp ne tele am na di leen gërëm bu baax a baax di ñaan lépp yokk wërsëg bi yokk lépp yokk di ñaanal nag sama yaay ji toog te xam ni lépp moom la wàdd kaasa ba mu toogee ba tey jógul maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant bu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp sant mag ñëpp sunu sama mag yëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla defal ñu jàmm ju bari ñu bokk fekkee at yu baree baree bari safar gi yàlla bu mu doon suñu mujjantalu safar yàlla nañ koy safar ay ati ati ati at soxna mi maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may yokkute may ko gudd fan may ko wér ba muy mën di ko taxawal at mu nekk ndax macha allah safar gi neex na at mu ne mu def ko waaye ren moom dafa gën a ala mi ñi ñuy ciy ñaanal nag suñu doom jooju nga xamante ni mooy soxna Ndeye Amy Ndiaye yàlla na mottalee àjjana àjjanay firdawsi ya ndawam ci barke Seydina Mouhamed sant nañ leen bu baax te gërëm nañ leen gërëm ñu fi teew yépp tamit di ñaan yàlla defal ñu jàmm may ñu sutura ak fekke may ko gépp mboolum julli ci barke Seydina Mouhamed jërë ngeen jëf yàlla nañ ko teewee déwén yu baree baree baree bari macha allah ah, di sant yàlla bu baax julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di gërëm suñu waajur bu jigéen bii di suñu yaay suñu baay ba ca laaxira yàlla xaade ko aljana yàlla may ko lu kawe kawe fa mu tëdd kii ñuy wax nii nag muy soxna njaxat si la sama yaay di ko dàkkantele mignon alias Sonia muy sunu rakk ju baax ju ñu bëgg bëgg sama ndey lool Euh, bëgg sëñ tuubaa ba mu jeex ñu koy ñaanal yàlla nag wér ñaanal ko gudd fan tele bii mu nekk nag aussi yàlla na ko yàlla may ko si lu kawe njortam yoonu sëñ Touba bii mu nekk it yàlla na ko suñu borom defal ngëneel may ko ci taw féex nag bu saawaan baawaan euh, ndax baax na lool bëgg na njaboot. bëgg sama yaay bëgg ñëpp moo tax ñëpp ko bëgg ah, di ñaanal aussi suñu doom ji nga xam ne moo fi duddoo muy soxna Amine Yaay waaw ah, mu tëdd yàlla na ko gën a fi mu jóge yàlla xaare ko aljana fi daw si yàlla na ko borom bi àtt si yërmaan dem te ko àtt si jëfam ah gëddu bi fi dëgg daal la ñëpp di jooy wax dëgg neex ndax heure bii daaw mi ngi fi nekk di préparer ñuy defar affaire bi neexoon lool mais sunu boroom lii la nam ma bu yàlla bëggee jaam bëgg jaamay ñàkk ah mu nekk nax doom ju baaxoon doom ju bëggoon ñëpp su yeboo daal mu nekkoon ni xormu famille bi suñuy wax sax suñu waxtaan du mën a demee noonu ndax wax dëgg yàlla suñuy xol saay su nekk day fees parce que deme ngi ñun ñëpp la kii waaye nag sant yàlla rek sant yàlla rek te xam ne lii ak àdduna ñoo ànd macha allah mi ñoon nii nag ah wax dëgg yàlla luy wax si moom fii ba suba du jeex muy Alya Sonia du jeex du ko ñaanal yàlla rek euh, safar gi muy def nii yàlla na ko yàgg di teewe yàlla na ko yàgg di mën lu mu def ren rek yàlla na ko yàlla borom bi ah yombalal li mu koy defee saay su nekk nag mu koy def ay ay ay at yu baree baree baree baree baree macha allah kontaan nañ trop si ñoom gërëm nag tamit waa kër gi yëpp gërëm soxna yeeg sunu mag yeeg sunu raq yi ñëpp macha allah kontaan nañ trop si télé bi te yàlla jëm ca kaw ca kanam macha allah merci beaucoup. Euh, asalaamaaleykum euh, téléspectateur waa RTT TV ñu ngi leen di ziar bu baax euh, di leen jox seen wàccuwaay ñëpp vraiment di def ay témoignages yi nga xam ne mooy soxna Sonia nekk na xale boo xam ne dafa am yar am diine. xam moom yàlla def na benn yoon laa ko côtoyé mais vraiment day na ma ci côté yëpp parce que xale moom bu nu waxee nee na lu olof di wax nee na xale bu sete loxo mën a bokk ki mag waaw vraiment boobu laa ko xam ñu waxtaan waxtaan bu sori vraiment mu jël bisam bi tey boole ma ci parrainage yi loolu nag honneur la waaw honneur la boo xam ne man mënuma kaa fay waaw kon nag Euh, ñu koy ñaanal rek li nga xam ne door na ko te yaakaar naa ne dégg bu mu ko dooree yàgg na kon defe naa ni kon ay tànk kanam rek la ciy am bu ci am ay tànk ginnaaw mu koy ñaanal yàlla yàlla def mu koy def ay ati ati ati at euh, ci barke Seydina Mohamed ay vraiment aussi ay waajuram nekk ñu baax ñoo xam ne ñu ouverte quoi macha allah ay famille bi yëpp ay frère ay sœur vraiment nekk ay nit ñu baax. waaw te yaakaar naa ni bu ñu jëlee Sonia wekk rek c'est parce que dafa nekk xale bu baax ku am yar waaw vraiment loolu la ñu amoon loo xam ne ñu ngi ko ci doon témoigner aussi nag di ñaanal suñu télé bi nga xam ne mooy RTT TV mu nekk télé bi nga xam ne dinañ ko dégg fépp foo xam ne ci àdduna waaw ndax vraiment ñu koy yor am nañu professionnalisme Euh, vraiment di nuyu aussi directeur programme bi di euh, euh, sëñ Xaadim Soumaré ak monsieur Mamadou Seck bi nga xam ne moom moo initié télé bi waaw nuyu nag tey yi nga xam ne ñu ngi nekk Thiès yëpp bàyyiwuñu kenn waaw di leen jégalu bu baax nag waaw ndax te bis bi tey ñëpp ko waroon a yëg mais bañ a sonal kenn rek waaw moo tax ñu ñëw fi nii doon vraiment di mottali suñu yéene si Soña asalaamaaleykum wa rahmatullah. شكورا بعد هند مقلد لباق ما در الذي هذا غدر صلاة الذي أنوم أبدا لبي على من بي لخاد سبوا بلا كدر فساة خير الخلق أبدت قصائدي wa kawni bi abdan xadiman lu sahal rabitu rabaan lam yakun qattu misluhu bi fadli lazi kawni habiban lu stahar salaatul lazi li xaada kaw ni xali ko yi ci kaw sax abubakar sax ana uhuru waaw ayna usmaan ayna aliyu sax la ko yi ci kaw sax soppay sëñ Babacar Si sëñ Babacar Si soppay sëñ Babacar Si ana ngeen soppay alxaaji moom la sool soppay daa baaxul ma liggéey doomu jaaraanu nopp yi doomu jaaraanu nopp yi doomu jaaraanu nopp yi doomu jaaraanu

ku jaaraalu la kum ka ci jaaraalu lay lay la la ku jaaraalu la kum ka ci jaaraalu lay lay la kum jaaraalu la kum ka ci jaaraalu lay lay la la kum jaaraalu la kum ka ci jaaraalu lay lay la Guerrero. ya rasulullah ana sopp yonent bi ya rasulullah رسول الله يا رسول الله يا رسول الله ديجيتال من دي يولاي ويل يا رسول الله محمد يا رسول الله سخني سخني من دي يلاي بقل يا رسول الله waa safar gi yaa rasulallah moo di digle man de yéen laay bégal yaa rasulallah ana murit yi ana murit yi yaa rasulallah moo di digle man de yéen laay bégal yaa yaa leen nu raw sama yaa المدثر المزمل المبشر بمولدك رسول الله حبيب الله نجي الله شفيع الله بمولدك رسول الله

yaa nu gën lay yaa nu gën baay ku ci d'accord sa loxo jokkoor yaa nu gën lay yaa nu gën baay ku ci d'accord yow laay way way yaa nu gën lay yaa nu gën baay ay waay ma di Kalaka منيرا عنينا بجنده في حالتي لم يرد مقاييس وبيت رب باريس إبليس لا يباريس في الآفات لم يمر من يدار قوما يلقى بهم مرض قلب فيرا لم يمر ما ولا مسر عني خامي لسان سير بشكر أنا للعوان يا شكور وليس ينقلني نجيا ولا

yaa لخير الفات والخلال وليس يام نزالا بزرا بالأكرام سيدنا بالمزنا مريم بالمضي lam yudrak ñu fay may yaa ngi doon jàppale ñaan suñu borom ak bu mag bi aadama daw na leen boo ma xool dawoon bi mos a bëri moo aar yi yaa ko doon mooy ñaan suñu xool dafa mu doon waaw dañu ko léegi yoon bi dem te ñu am na yaa ma ta am na léegi la am doo xam ne ñu ne yaa ni xëy na waale waale hada wa inni jël ma fawta man sori naful bi asbaari mukk min woo sa wa bi jaayi salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi leen di màggal bu baax a baax a baax di leen tàggal di leen sargal li nga xamante ne nii mooy bis bu am solo bi lee nekk safar gi nga xamante ne nii soxna Faye woote na ko muy euh, taalib Serigne Touba taalib Serigne Sadikh Touré nekk Mouride Sadikh nekk jigéenu jàmbaar joo xam te ni Kantete ràññee na ak njàmbaarteem Som ràññee na ak njàmbaarteem Kees ràññee na ak njàmbaarteem mu nekk jigéen joo xam te ni mi ngi bay waaram ci islam bi di bay waaram li nga xamante ni moom mooy euh, yoonu Serigne Touba bëgg Cheikh Ibrahima Fall lool allah ba gis nga ko li nga xamante ni mooy woote bis bu am solo bi lee ñu ngi ci bis bi wax dëgg yàlla dara jaaree ko nag jëpp ñi nga xam te ni mooy Khadim Soumaré nekk jàmbaar ci biir RTT nekk jàmbaar ci biir regroupement des tailleurs kon wax dëgg yàlla soxna euh, bay def na li ko war euh, Khadim nag gis nga ko doon sunu ginnaaw àndal ma forte ñëw fii ci som ànd ak euh, ñi mu war a ak président regroupement des tailleurs ràññee leen tamit Baye Sidi Diop ak ñi mu àndal def forte délégation ñu fii xam naa ne ñu toppee tuuti li nga xam ne moo xew ci fii ak mbokk yëkkat xasida yi waa kër Serigne Saliou Touré ci kërkat yi mboolem jàkkal yi ñëpp ñëw nañ kon incha allahu rabbi ci kanam tuuti rek ñu àndandoo dugg ci tànt bi xool li nga xamante ni mooy safar gi am jëriñ soxna woote na ko mu jublu ci wàccaayu màggal bay ci waaram jaaraama Serigne waajal bu baax a baax ñu dem ci kanam incha allahu rabbi yàlla doy ump li nga xam te ne moom mooy bis bi jërëjëf ba ci kanam incha allah waaw ba tey ci jotaay bi nga xamante ne nii mooy euh, safar bu am solo gi leen euh, soxna Faye woote ko nekk jàmbaari Serigne Saliou Touré ji woote fii ci Sob alhamdulilah ñu fekk di jël mu xidma ji nga xamante ni jàmbaar la muy kuréel gi nga xamante mooy daayira bu gi nga xamante ni moom ci la bokk wax dëgg yàlla ñu war koo dalal seq ak moom ay jotaay euh, waxtaan ci li nga ak seen teewaay jërëjëf ngi a baax. asalaamaaleykum. a waaw ñooñu ñoo ngi fay bu a baax a baax waaw wax dëgg yàlla kontaan nañ gërëm leen ci teewaay bi parce que tamit euh, lii nii yombul maanaam bis bu nekk nii yow nga ñëw couvrir ko def ci suñu kese participation dëgg yàlla yombalal ngeen ñu daal liggéey yàlla kontaan a euh, soxna woote ko nekk jàmbaar ci yoon nekk jàmbaar ci daayira bi ngeen ñëw fekk si ko nekk ci xidma bu am solo loolu lan nga ni ci mën a wax. waaw ah, soxna moom dëgg fa yàlla jàmbaar moom loolu la parce que maanaam moom xam ba ñu xamante ni kay kay si wàllu liggéey lay xamante maa ngi moom dañoo bokkoon benn société maanaam kay ñu xamante dafa yaayam ba mu ñëw présenté ma ko ma kat ah, ku baax kii nee kat bëgg naa tamit nga téeméer bu baax. mu jàppee ma frère ma ma ma ma téye ko sœur ba li lépp dugg si maanaam li ñu gis fi yëpp ñun ñëpp ñu ñoo bokk ndoo fi ñu liggéeyee parce que moom tamit jàmbaaram daal moom moo ko sëñ bi wax dëgg yàlla yoon bi moom am njàmbaarte moom xam ne xam naa ne bu baax a baax a baax a baax ma xam naa ko man parce que moom kay door ça fait sept ans ngi nii ba màggal gi jibee wallaahi ñu dugg ci weeru safar mu ne ma alburi ma woon soxna Ami yàlla ko yàlla yërëm tey ñu ko mu ne ma est-ce que xam nga ne ñun li ñuy organiser safar ma ne ko safar mu ne ma waaw ma ne ah safar te safar boobu noonu yàlla xam na ne sax moo ëpp taxawaay lii wala ñoo tam jàmbaar rek moo indi te bas lii def alhamdulilah bis bi mel ni taaru lool de saf murit lool ndax gis na ne njàngum xasida njàngum alxuraan bernde yi wax dëgg yàlla lool taxawaay bi rafet lool defe naa ne kon lool uh, ku ñëw ci barab bi di xam ne soxna ak murit saa di xam kenn du ko laam-laamee uh, diggante soxna ak pësteefam ci biir daayira bi ak soxna ak uh, fonkeel gi mu fonk safar gi loolu ban jàngat nga ci am. waaw mooy kenn wax rek xam nga ab doomu aadama moom yëboo jóg te te fonk mbir mu la yëkkati kon dama naan kon yow amoo pas parce que depuis boobu léegi maanaam soxna pas ak tamit euh, dooleel ak ak waa këram ñoom ñoom ñoo indi lii lépp parce que tey yéen nii kii di ay waajuram dañ ko ay frère am ak sœur am ay tante am ak bàjjenam ak ñoom ñëpp ñoom ñoo épaulé ba ñun ñii nii tamit aussi ñu yaatalaat ko ba tey jii nii nii lii ngay gis nii. am na ay tijaan am na ay murit am na ay yeneen tarixa yoo xam ne ñoom ci biir ba sànq rek am na ay tijaan bi yoo xam ne jaareen fi maanaam bis bi waroon na gën a mën a taaroo nii sax mais tamit li ñu wax naan jàmm rek pexeem boobu rek dogalam. parce que tamit taw bi tamit ay xewal la rek. waaw mais ñu dara yàqu aussi. Ah, ah, waaw waaw ñu ngi santaal bu baax a baax jëwriñ Alboury ñu taxaw jëm ji nga xam te ni jëwriñ Alboury nekk jàmbaar joo xam ne kenn la ci yoon yi nekk jëwriñ ci euh, soxna nekk jëwriñ ci daayira bi ñu taxawee taxawaay bu rafet boo xoolee fii ñu taxaw ci sunu ginnaaw gis ni ahlu bi wax dëgg yàlla euh, euh, ñu ngi def ay bernde ñu ngi yaatal di ko taxawee taxawaay bu gën a rafet ku xool li xam ne murit saadix wax dëgg yàlla ku ko xam xam ne diggante alxuraan xasida ak bernde loolu moom wax dëgg yàlla doxinu murit la kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ba tey ci jotaay bi nga xam ne mooy bis bu solo bi li nga xam ne soxna fay mi ngi koy woote fi di safar nekk ci wàccaay màggalu ko Cheikhuna Ahmadul Xadim eh, li particularité bés bi mooy da koo jël dellowaat ko boppam mooy mu tuddee ko jëmm joo xamante ne ni bu ne Serigne Khadim Soumaré xamante ne ne regroupement des tailleurs xam na ko Thiès xam na ko ahlu murid sadi xam nañ ko ndax boo demee wilaya boo ne Xaadim Soumaré wax dëgg yàlla doy na sëkk mandarga ci buntu ci borom Touba alhamdulilah mu nekk jëmm joo xamante ne nii képp ki ahlu xasida képp koo xamante ne bokk na ci ñooñ murid wax dëgg yàlla bu ne Xaadim Soumaré mu ciy bay waar wu am solo kon bu soxna jëlee bis bi eh, dara jaale ko Serigne Xaadim yaakaar naa ne wàcc na lool mu ànd ak mbooloo mu takku de forte délégation gis ko noonu ci image yi mu dugg si dugg si bu laataa ñu ko moo tënku ñu bëgg a seq moom jotaay tuuti rek ngir xam teewaayam ndax wax dëgg yàlla dara jaale bi ñu ko dara jaale ndax nag euh, borom bis bi wax dëgg yàlla mate na ko ndax bisub Cheikhul Khadim bu ñu ko tuddee Serigne euh, Khadim wax dëgg yàlla wàcc na Khadim ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah. mbokk yi ñuy nuyu ñuy seetaan télévision bi yëpp waaye di ko jël di teg euh, nuyoo bi ci loxol alaaji Pape Seck Seck Ndanaan di sama xarit kenn ci kër gi di kenn ci RTT TV waaye di kenn ci regroupement des tailleurs de la région de Thiès Pape ñu ngi lay am mbégte bu baax tey ci bis bu am solo bi nga xam ne ci lañ leen fekk di bisu safar di euh, weer woo xam ni weeru sëriñ bi la waaye weer woo xam ni weeru lislaam la weer woo xam ni ndamal lislaam la ndax weer yi ci la sëriñ bi génnoon waxoon xarajtu yow ma sabti saa mina asar li xidmatil muxtaari fii sax li safar yàlla def mu génnoon ci dem tukki tukkeem bu rëy boobu tukki boobu it tey damay wax ni moo sauvé jamono mbooleem luñ fi am ci jàmm mbooleem luñ fi am ci xéewal mbooleem luñ fi am ci xeeti jaamu yàlla yu kawe tukki boobu moo tax ñu tal ko ndax booba am na lu fi nekkoon ci euh, ci wàllu tënk-tënk jamono wàllu nooteel wàllu ñàkk moom suñu bopp nit ku ñu moomul woon boppam ci jamono boobu sëriñ bi di génn di tukki te sëriñ bi yàlla rek ñoroon ko jaamu yàlla rek ñoroon ko mu gis ni loola bu ci àdduna wéyee ci sànku lañ jëm waaye ci euh, dund ba faatu te duñ am ngërëmul suñu borom ci lañ jëm euh, yàlla def sëriñ bi ci gis-gisam ak ci mbaaxam ak ci yërmandeem mu jóg yenu yen boobu euh, mbooleem natt yu ci fekk fekk ko ci mboolem jafe yi ko ci fekk fekk ko ci mu génn ak njabootam ñu tënk ko ci ay barab yoo xam ni ak limu at yoo xam ni mat na juróom-ñaari at ak yi topp yoo xam ni gisul njaboot euh, moomu boppam dundul ci bànneex weer wi ci la génnoon yàlla def ba mu jógee ci tukki ba mu li mu njëkk def mooy sant boromam waaye wax ni bu weer wi dellu seetee nañ ko nañ ko santale boromam képp koo xam ni sax ndax mbégam sa mbég la nag ma sant suñu borom muy lu am solo weer wi daal weeru mbégte la pap ñu ngi ciy siyaare mboolem waa adduna bi waaye ñu ngi sant Seexul Xaadim bu baax a baax mu mel ni Sëriñ Xaadim foofu nga ubbee dafa am solo lool ndax euh, ndar képp nga li nga xam te ni mooy solos euh, cante gi di solos màggal gi mu mel ni euh, bayit dëppoon ak bayit di Cheikh Moussa Ka waxoon ne bu bu dul ko nag demam gi kon wolof na nas nasraan ñëpp dem niiraan daal ne te it ku màggal bisub bi aj nga umra nga siyaari nga am nga yool ba kon mu mel màggal am na dayoo am na xarkanam bu yaatoo yaatoo kon mu mel ni soxna wàcc na ndax dafa mel ni gàttandu na màggal gi ci màggal weeru safar ndax lu jublu màggal mi ngi woote ngir sant Serigne Touba tàmbali jëm ca fukki fan ak juróom ci weeru safar. ah muy lu am solo da nga wax am solo muy Baye Moussa Ka lu ci wolofal boobu di ku màggal bisu tukkeem bi aj nga umra nga jihaan nga waaye am nga yool ba waaye am nga yool ba loolu moo ci am solo nit mën na def jaamu yàlla yu kawe yëpp def ko ba noppi te amu ci ngërëmal suñu borom amu ci yool waaye dafa garanti ni ku mbooleem ku màggal bi su tukkeel nga yool ba kon loolu lu am solo la bu ko lañ ciy def mm-hmm. sant lañ ciy def bu baax a baax soxna da koo gadanu soxna da koo gadanu waaye murit yëpp dañ ci yeewu léegi ndax sëriñ bi ñoo defal loo xam ne mënuluñ ko suñu bopp mm-hmm. tey jii danañ sant yàlla waaye danañ ko jaare ci sëriñ bi lépp lu ñuy def ci xeeti jaamu yàlla mm-hmm. ni ko sëñ Muntaxa di waxee nañ ko def waaye nañ ko sant sëriñ bi ndax moo moo tax ñu tal ko mu mel ni gone yi dañoo dem ba comprendre sëriñ bi mbégte mi mu leen defal ba mel ni dañ ko wutal sax slogan ndax ñu ngi naan mer maîtriser kontaan continuer mu mel ni mbégte dafa tàbbi ci xoli murit yi ak xoli jullit yi ngir ndam li sëriñ bi amoon mel na ni léegi àddina moom dañ nañ ci kumpa te xam na ni bis mbégte dong la damay gis benn sew sew sax boo xam ni dafa am solo ñu def ci taxaw seetlu Pape ndax dañuy gis ci wàllu internet bi am mbokk yoo xam ne dañ koy jël sax def ko genre comédie waaye du man du ma xool comédie bi damay xool importance wax bi weer wi safar la weer wi bu teeroo ñu ni ko ku bëgg dara ko moom ku xëccoog a bëgg di génne ay teraanga di ko def ci nit ñi loolu euh, bu ko nit ñi wax man mbégte laa ci waaye taw féex laa ci am damay xam ne nit ñi comprendre nañ ko ko waxee. xaadim mu mel weeru safar ñu bari sax daaw ñu ko laal daaw ñu ci jël soxna daaw ñu ci sanc daaw ñu ci def dara ngir mel ni sax ku ko gaafal ndekete weer wi euh, suñu borom da koo làqaloon borom Touba ñoŋal ko ko ndax nee nañ garab gay war a doon penc law bi di ko gis euh, ba di ko gor ndekete weer suñu borom da ko réservé woon Cheikhul Khadim dong dong dong dong loola lan nga ñu ci jàngatal. dëgg la ndax weer ñu gaafal la woon. weer woo xam ne daanaka dañ ko ginnaawaloon ñàkkal ko solo ba ñu ci bari ci lislaam euh, boo boo daawuñu ko ci def mm. dañ dañ koo gaafaloon ci ci tënk rek mm-hmm. waaye sëriñ bi dundalaat na weer wi sëriñ bi dafa dundalaat weer wi ndax bi mu ñëwee mm-hmm. euh, tey jii mën nañu wax ni at mi fukki weer ak ñaar la mm-hmm. weeru safar benn weer gënu ko cee ràññeeku waaw benn weer gënu ko cee ràññeeku li Seexul Xaddiim weeru safar mënoo wax ni benn weer moo ko gën a siiw ci at mi weeru safar yi bu teroo li nga ciy gis ci ay xeeti xéewal ak ak mbégte gisoo ko ci benn weer weeru koor weer wu ñu barkeel la weeru weeru saxbaan weer wu ñu barkeel la rajab weer wu barkeel la ndax ci la julli wàcc waaye am na ñoo xam ne bu ñëwee sax duñ ko yëg xaadim mu mel ni dafa am sew sew bu euh, safar gi lambol ndax weer wi bu rëccee rek ñu daal di dem ci weer wi xam moom mooy mawlud dem ci yonent bi nga xam ne kon Sëñ Tuubaa ndono gi mu doo a jóge ca weeram rek dem ci weeru Seydina Muhammad dafa waxoon salaati sitta di marti sitta taati batta maati saaya juróom at mi fukki weer ak ñaar la juróom benn weer yi da koy julli ci Seydina Mohamed juróom benn weer yi da koy tagg Seydina Mohamed moom léppam Seydina Mohamed la moo tax boo xoolee ni mu toppantaleeg weer ak euh, weer yi nga xam ne mooy weeru gàmmu du hasard du hasard ndax léppam ak lépp yenent bi lenn la waaw lépp ak léppam yenent bi lenn la boo dégloo ci euh, jasawu sakoor euh, am na fu ñu fay waxee ni ko yónni woon Ahmadul Mbakiyu moo yónni Ahmadou Mbacke waaw koy mu ngi noonu <laughs> loolu da lay tegtal ni kon lenn li la mm-hmm. lenn li la fa la bawoo rek fa la bawoo sëriñ xam naa ne maa ngi leen téye waaye te jii day mbégte moo tax dinañ yaatal tuuti bambaani maay na ma dal islam sëf leen ma jóor leen ma dinaa ko jaamu mu mel ni sëriñ Tuubaa kon dafa dëgër ba joo ngar daajoo li am mooy jafe-jafe yi ba tey ndam lii am ba tax tey àddina yëpp di bége waaw xam nga tukki bi wax naa ko sànq maanaam nattu yi nga xam ne suñu borom wàcce woon na ko ci jamono te kenn attanu ko woon benn mbindeef attanu ko woon moom la sëriñ bi jël dékku ko bi muy waaj di dem ci tukki bi dañ ne ko woon natt yi day dina diis lool bi mu deeyaale ak boromam bokk na ci li ñu ko yëgal mooy natt yi dina diis lool mbaa duñ ko attan mu ne moom xamul lu ruu gi attan waaye lépp loo xam ni jamo koy maye ak fit ak ngor attan na ko kon nattuwul mboolem lu ci am ci ay nattu ak lu ci lu mu laaj ci ay jafe-jafe dana ko dékku moo tax jaar na ci fu nekk waaye amul benn yoon fu ma waxee ni fàttaliku naa nangam ba war a tax ma ma am dara wala dagg bi mu demee ba tukki bi jeex lan la wax jéggal na mboolem koo xam ne ani ak daayu turam mu ngi noonu kon loolu dafay wane ni sëriñ bi moom kenn di moom rek kenn du moom la yàlla bëgg ca xarit ba ci maqaama ay nattu la koy xayma ngir dara jaal ko mbaa mu doon ku muy baal kon mu mel ni sëriñ Touba wàccoon na ñun xaadim sëriñ xaadim bis bi am na solo waaye nag bala ñu laa dara jaal soxna dara jaal bis bi tatagal la tuddewaat la bis bi loolu ban mbégte nga ci am sëriñ xaadim soxna damaa yëg ci moom ñu daf maa defal ak soññee waaw daf maa defal ak soññee yàlla def na ni ku yaatu laa ci jamono ku am leen tooy laa ak ñëpp ak ñëpp foo ma tudd leen xam ni kii mooy xaadim sumaare jàmbaari wilaay ji mu ngi noonu waaye kenn musuma tuddee beneen bis budul bisu sant sëriñ Touba soxna nag moo njëkk a jël bisub safar tudde ma ko. Ah, bisub safar loolu cër la waaw loolu. moo tax ma jàpp ni ab soññeeli ca man ndax man am na ay jamono daan naa taxawal safar daan naa ko taxawal bu ñëpp xam ko ci man toog naa ab diir sax defuma ko waaye damaa yëg ni dama ko war a defaat ndax bisu cëri cëri soxna bi soxna nag ñu ngi koy jaajëfal bu baax Pape Seck di ko jaajëfal bu baax te di ko ñaanal ndax liggéey bi ñu bokk ak moom ci RTT TV da koo rafetal man mi nga xam ni maay directeur des programmes ko sant loo xam ni ma ay ca euh, mënuma ko la mu gàntal dama koy yónni fu ne day génn sax dëkk bi dem defal ma reportage indil ma ko émission dama naan ko jëlal concert bi nga def ko wala defal nangam bis sangam enregistré nangam mhm. mais du ci teg baat ah, reportage fu mu mënta am dama naan ko demal defal ma ko mu dem def ko ñëw te du xaar ci man sax merci beaucoup bu ko defee ba ñëw daal mhm. dana ma pare naa ma ne ko jërëjëf mu dem yoonam kon moom jàmbaar la liggéey bi ñu bokkoon moom yàlla boppam boo xam ne moo koy moom jiital ko boppam di ci am teraanga ju dul jeex loolu lañ koy ñaanal ci bis bi di ko wax ni daal bëgg laa doon bëgg a wax nga tudd ñi nga xam ndax dafa mel ni bi bi ngay ñëw wax dëgg yàlla ànd nga ak say bokk ànd ak say jegeñaale ngir wane ni cër biñ la jox taaral nga ko ba mu taaru mu mel da nga ànd ak mbooloo waaw mbooloo mi ñu àndal loolu dafa jaar ndax dafa am kuñ ci njëkk a tudd moo nekk ca bopp ba muy président Mamadou Seck ndax lii lépp moom la moom moo samp tere bi boole ñu ci ñu ciy liggéey boole maag xale yi ni ma yow yaa nekk ci seen karam moo tax bi bis bi amee ma ne ko lépp lu ma ciy def yow yaa ciy jiitu boobaag léegi ñu ciy ne mu ñëw euh, euh, ànd ak man gunge ma sagal ma it nag ñu jaajëfal ko bu baax président Baye Sidi Diop moo jiite téere marché Moussante moom waaw di sama mag di sama xarit tette ma ba lu ci bari tey ma man ko lu ci bari ma xam ko yàlla ak jëmmam la mu ñëw représenté Moussante yëpp waaye ànd ak vice président Papa Ndiaye ñoom ñu jaajëfal bu baax waaye ci délégation bi aussi maa ngi cee kenn koo xam ne sama xarit la muy ak sa di jànkatu xasida moom ba mu déggee bis bi bis bi de incha allah danaa ci ànd ak yow jànkatu xasida yi rafet na lool xaalis noonu waaye yemu ca Ousseynou Ndiaye jànkatu xasida la ba noppi bokk ci ñi ñu tuddee bi waaye dañu ma si sa délégation laay bokk suñu lépp ñu boole ko muy benn moo tax moom it muy ñëw mu am boo ah, bu am solo boo xam ni ñëw na ànd ak moom Serigne Mame Gor Thiam bokk ci ak Serigne Bassirou Serigne Adama ak ñu ko àndal ñëpp waaye euh, ñu beral cant ak ngërëm Serigne Ousseynou Ndiaye comme ni ma ko waxee léegi ndax jàmbaar la tey comme taxawaay la ñëwul ngi sax ngir feeñ ni moom dañ ko tuddee ci bis bi maanaam ba ci àddiyee ji a jébale sax dañ ma def ko si saxablo loolu mooy loo xam ne ni waaw ak cër la ak lu neex waaye jaajëfal aussi tamit soxna yi nga xam ne am nañu moom Euh, ci njiital sama soxna muy soxna Sophie moom moo ñëw jiite délégation jigéen ñi ànd aussi ak Issa Issa Mbaye ànd aussi ak Assou Mbaye ànd aussi tamit sama jabaru frère di soxna Nogoy Ngom moom it mu ñëw ñoom ñëpp ñu ñëw waaye ñi amoon yéene ñëw sax bari nañ ba fu mbeng aussi tamit di remercier ko bu baax a baax ndax dañoo yombal ñëw bi oto ay oto yu jàppandi la jël jox ñu ko di ko ni ma dem leen te ngi noonu am na ay yitte sax yoo xam ne moo ko teree ñëw waaye kon dañu doon ànd def nga li la war ndax bés bu mag wax dëgg yàlla da nga koy jox jëmm ju mag ndax boo wala fi dañuy wax naan nag bu mag ci penc mu mag lay daanu euh, rafetal nga ko taaral nga ko waaye nag loolu rek la mën a dem ak sa digganteeg soxna rafet na xam naa ne jotaay bi taaru na waaye boo gisee ñu téye la day bis benn toll euh, cër benn toll rafetaay genn toll xam naa dañ lay bàyyi nga wàcce kàddu yi rek ba ca kanam incha allah jërëjëf bëgg nañ la Pape Seck yow suñu kàddu sax mën nga ko yóbbaale waaye yow macha allah bëgg nañ la te dégg nañ fi nga génn tey macha allah yàlla yàlla fay la jërëjëf di kàddu Khadim Soumaré nekk jëmm ji nga xam te ni kilifa la ci RT jotee ñu dara jaaleel ko bis bi alhamdulilah ñu dem dellu saat ba ci kanam tuuti. mais di ñaan sunu borom yóbbu ñu ci màggal ngeen jàmm te leneen lépp luñ ci yéene pas ko ci mais sunu borom defal ci kàttan nee na ban man cee matale yéene yi ci màggal bi bu baax a baax sëriñ bi nee loolu moo nekkoon kàddu nee na bi nee na ngi sant mbooloo mi nga xam ne teew nañ fi mu mel ni sëriñ Ousseynou Ndiaye xasida ak sëriñ Xaadim ak Kassar nee na sëñ maam Buur Caam ak kilifa yi nga xam ne daal teew nañ fii ñoom ñëpp rek nee na bàyyiwul kenn nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon bu defee rek. amiin amiin ba amiin. bu ko defee rek kuréel gi ngeen jege si jox di jotaala la ñu daal di présenté ko délégation bi ñëwoon ndax moo ñu ko gën a miin représenté fa nekkoon xasida yi. continuer incha allah ci tënk ci jotaay bu am solo bi la nga xam ne mooy bisub safar bu am solo bi la soxna fay woote ko fii ci euh, som muy euh, jotaay boo xam ne yàgg na koo doy ren mu gën koo yaatal gën koo taaral wax dëgg yàlla mu murite lool waaye nag li naan lu def waxute lu ay di njàmbat Euh, te it li xew rek euh, sunu way jura li xew yëpp sunu yaaya wax dëgg yàlla ndax ñu taxaw way juram nii mu jur ko ci yoonu Serigne Touba yar ko yar bu rafet tatagal ko ba tey mu mën a taxawee lii ba mbooloo ñëw fi kilifa diine ñëw fi waa kër borom Touba waa kër Cheikh Salih Touré ñëw fi lépp bu demee ba am booba taxawaay way jur bu baax rek moom moo ko waral sunu way jur wow nag moom lañu taxawal nii bëgg a seq mu ay jotaay mu wax dara rek ci li nga xam te lay ñoo lay fay ñoo leen di fay alhamdulilah rabil aalamiina ñoo ngi santaat yàlla di sant bu baax a baax di sant borom Touba ñu waral jotaay bi tey soxna nag sama doom la fay lépp lu ma neex mi ngi jaar lu neex ay waajuram ci lay jaar. lu mu am ay waajuroo ma ko dañuy defal ba ñu dañuy defal ba ñu békk mais yàlla ak bëgg borom Touba lépp lu mu defit borom Touba safar gi yàgg na koo nësër at mu ne ren mooy sixième mooy sixième yoo xam ne si ñu safar gi te day gën a yokkute rek lam ca nasoon lam commencé woon day gën a yokk at mu ne day gën a yokk tu gis mbooloo mi tey xam ne lii ah ëpp na sax safar. ëpp na sax safar mën nañ koo tuddee màggal mën nañ koo tuddee gàmmu ndax mbooloo mi takku na waa kër sëñ bi sëñ Saliou Touré mi nga xam ne ginnaaw yàlla moom la yaakaar ñoom ñëpp ñëw nañu doomi sëñ bi ñëw nañu ñëw nañ ba ñëpp gis nañ leen wax nañ fi kàddu yu rafet gërëmaate saafoonte santante ba ñu noonu di dem. yéen waa télé bi nag di RTT ah mënuñu leen a fay xanaa ñaanal leen rek télé bi yokkoo yokk yàlla na gën ci télé yi yàlla na ëpp doole ci tele yi ci kàttanu yàlla yéen ñi ci nekk yàlla may leen ngeen gudd fan yokkute ba at mën nañu fekke ko ci kàttanu yàlla ak barke borom Touba jaay jëfati mu mel ni soxna da def lu doy waar loo xam ne lu ama am solo la lu bett ñëpp mooy ñi nga xam te ne mooy ay taalibe seex doon ay tiijaan soxna cëral leen ci ñëw feeñal fi seen yéene mu mel ni benn rek islam gi soxna li muy doon doon gune jox na ca waaram. wallaahi waxoon na ko tey defe naa ne day gën a yokku yokkute rek li ciy jëlee yokkute rek li ciy jëlee ndax sëñ bi sëñ Touba mi ngi yokku yaakaar bi ginnaaw yàlla ñun ci moom lañu ci moom lañu yokkoo tey yokkute la bëgg yokkute la bëgg at mu ne day gën a yokku may ñaanal soxna yal na ko sa borom yàlla suturaal yokku wërsëgam guddal aw fanam may ko wér may ko wér may ko borom kërit bu baax loolu laa koy ñaanal sedd sama xol sedd na ay xol waajur ay waajuram yëpp sant nañ ko ay magam sant nañ ko dëgg yàlla ñi bokk di liggéey sant nañ ko boo ko doon soññ yéen kàddu nga koy wax xanaa mu gën a góorgóorlu rek mu gën a góorgóorlu rek te fii mu teg tànk mu ko teggi bu mu ko teggi ndax lu baax rek la tey daal kàddu yi ñëpp tey bu ñu sañoon tey di soxna bu ñu sañoon tey di soxna ndax kàddu sëriñ bi ak gërëmaante sëriñ bi te sëriñ bi teg ko ca kaw dëgg yàlla kon kontaan nañ ci bég nañ ci waaw waaw alhamdulilahi rabbil alamin ba tey ñu ngi ci bis bi nga xamante ne ni mooy safar gu am solo gile soxna woote ko nekk jàmbaar joo xamante ne ni wax dëgg yàlla jàmbaar Serigne Saliou Touré ji nekk jàmbaar ci fi nga xamante ne mooy la RTT TV wax dëgg yàlla ko xool taara euh, jotaay bi ak ni mu rafete wax dëgg yàlla xam ne soxna wàcc na wax dëgg yàlla ndax woote na euh, wuy si nañ ko te taaru na am nay bernde am nay xasi xasida taxawe na taxawaay bu rafet particularité bi tamit mooy taalibi seex yi nga xam ni feeñal nañ fi seen yéene kon mu mel ni soxna euh, li aaya bi naan waxtasimu bi abdillahi jamian wala tafarraxu moom ku ko dégg la ndax bu mu yàlla gi mi ngi koy jokkale ba mu sës di ko rafetal ba mu taaru waaye nag li gën a taaral jotaay bi mooy bu nit wootee te ay kilifaam ñëwuñu day mel ni day des ñëw fekk fi nga xam te ni mooy président euh, Mamadou Seck président regroupement xel day wara a daal alhamdulilahi rabil alamin duñ def dara nag lu dul jotaay ak moom ci li nga xam te ni moom mooy teewaay bi mu joxe kàddu nga xam te ni mooy taayir yëpp président ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga waxtaan ak ñi lay seetaan. Euh, merci beaucoup euh, Pape Seck maa ngi lay nuyu bu baax. di la ndokkeel di la bu baax ci taxawaay bu am solo bi nga def euh, biñ la nuyoo bu baax Pape fay la bu baax sant la gërëm la ci taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci liggéey bu am solo bi nga def ñun nga ko defal ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm sa taxawaay rafet na macha allah sànq rek ci émission yaa ngi jooyanti ndax da am solo lool ci image am solo ci kër gi soxna nag sunu rakk la yaayam wax dëgg yàlla yëkkati ay kàddu dénk ma ko bi ma ko dénkee ma jëlaat ko dénk ko sëñ xaadim xaadim ku ko xam xam sama diggante ak moom bis doxu ci Euh, yàlla dogal na ci kilifa bu Baye Sidi Diop sunu mag sunu kilifa sunu lépp la Baye Sidi moo boole xaadim lépp rafet ba tey ñu tuddee ko lu mel nii soxna xool ba seppi ñu daal koy tuddee seen xaadim euh, dafa maa neex man su ma waxee dafa maa neex yow xam nga ci lu bari ndax nekkin léeg-léeg mu am ay jafe-jafe léeg mu neex léeg-léeg mu am ay ñagas-ñagas. waaye lii dafa am lu mu wane ci oyof. xaadim bi ko dara jaale lii mu def une forte délégation ànd ak i soxnaam ànd ak i gorom ànd ak ay xaritam waaw mu sant yëpp ñëw président Baye Sidi ànd ak jànkatu xasida ànd ak jànkat yi Baye rek mu jëlaat cër bi yëpp. delloo ko xaadim suñu xaadim ak asa loolu dafay wane ni ay xaritu xaadim ñëpp ñëw loolu dañ cee kontaan ñun parce que lii rek la président boobu yëkkati otoom joxe ko xa jox ko xaadim mu ànd ak bi ñëw kon ñu koy sant di ko gërëm lii ñu ko jox dañ ko mérito parce que diggante ak xale nii rek la mën a demee. suñ ma ko tuddee woon amaana dina rafet waaye lim ko tuddee xaadim moo gën a rafet ndax boo jëlee dénkaane ànd bi rafet loolu dafa am solo te soxna taalibe la nekkal ay way juróom di sant sëñ Abdou bu baax seen jëwrin ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi koy def ma gis ni mu leen di encadré ni mu leen di jàppalee ak leen di yaree nga xam ne waa kër sëñ Saliou yi am na taxawaay bu am solo bu am ci daayira bi waaye rawatina soxna di sant bu wax dëgg yàlla euh, gis nañ taxawaayam ak taxawaayam borom kër euh, soxna lii rek lay lay jëriñ borom bu xewee ay am di jàmmam nga def délégation ànd ak say mbokk ñëw ànd ak moom loolu joxol ñu ngi koy ñaanal yàlla sëyam bi yàlla na ko suñu borom def ndox mu sedd yàlla na ni yàlla jubóole leen fan gudd njaboot bu barkeel yéene la taalibe la te ñëpp loolu pat moo doon kàddu seede yoo xam ne yi sunu xol lañ ko di sant bu baax délégation bi dara ñaawul bàyyi si ñu koy sant bu baax moo tax ma xam xaadim moo jël loxo xaadim teg ko sama loxo tey bu ñu gëstoo gis Baye Sidi gis xaadim gis Kaba gis Papa Ndiaye gis gaa yëpp dafa rafet Baye Sidi waxtu bi daan na fekk mu tëdd bu yàgg mais gis nga ko waaw loolu sant nañ ci bu baax. yóbbante bi way juru soxna wax muy joxe kàddu cant ak ngërëm ci télévision bi ndax ni ngeen uufe soxna njaboote ko. ba tax tey mu ñemee jël bis bu toll nii di ko dara jaale ay kilifaam loolu ne woon naa dinaa la ko yeggale wax la ko way juróom bu jigéen mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax loolu xam naa ne am na tuuti kàddu rek yooyu ji toftal waaw euh, suma way jur woowu ñu ngi koy delloowaat cant ak ngërëm di ko wax ne soxna bépp ndigal boo xam ne bii yemee na ko xool ñu ngi koy jëfee kontaan ci moom te ku dégg ndigal la ku am yar la ku am taalibe la ku yem la ku xam boppam la kon loolu dañ ko ko seedeel en tant jigéen di ñëw di ñun xamee naa ñëpp ibbeeku yaatu soo ko soxlaa boo ko woowee mu jël xaalisam paas ñëw. taxaaru dara ci ñun kon ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ci turu MPD TV waaye ci turu regroupement des tailleurs yëpp ñu ngi ciy sant di ko ci gërëm bu ko wax ne noonu la buñ gisoon leneen lu gën dinañ ko ko jox incha allah kon sant Pape di la ñaanal rek yàlla defal la jàmm ak tawféex waroo dégg ci télé bi parce que ñu bari dañuy soppee. dañuy bëggee sa image dañuy bëggee say kàddu damay romb ñu naan ma sekk ndaanaan sekk fi mu nekk la nekk kàddoom dañ koy rafetlu kon yéen ñu ngi lay soññ ci loolu da gën a uuf xale yi gën a ànd ak ñoom incha allah rabbi di ñu toog ak jëmm yu am solo yi lee toog nga xam te ne mooy Pape Abdou Samb wala moom Pape Abdou ñu ngi nuyu bu baax a baax nga ñëwoon fii tey euh, télévision baa ngi en direct euh, nga ñëw ci safar gi te ni soxna moo ko woote muy bis bu am solo di bis bu rafet ñu euh, nga wax ñu lan moo waral teewaay bi tey. waaw alhamdulilah ñu ngi nuyu téléspectateur yëpp di dégg lool ci suñu fii tey tey nag dañu fee dañu fee ñëwee ñaari ñaari ñaari doom ndax benn bi. sunu rakk moo woote cant gi moo woote safar gi tey ñu soxna beneen làll bi sunu xarit sunu bopp suñu mbokkum taalibe loolu gënoon lépp nag ndax dana bokk Serigne Touba muy Serigne Ousseynou Ndiaye xasaay moom la ñu àndal moo nekk pare ci ci ci waaw bés nag ku ni mel ku ni ci woo dañ ci sawar ndax ñun dañoo am muy Serigne Touba te bu sawar xase ba teru murit moom ñëpp xam nañ ne ci lii lay nekk ba keroog ñu dem Touba waaw loolu dafa doon ak cant ci ñun ndax bu dul tax Ahmadu ñu naan ni ni jamono mel ko lay mel ni kon day mel ni mel waaw ndax Serigne Touba moo tàbbi ci xol yi c'est vrai certes nasaraan bi eh, dugal nañu école jàng nañu nasaraan waaye Serigne Saliou dafa am lu mu waxoon

dafa ne Serigne Touba tey jamonoom ñu jàngul woon nasaraan la daan defi murid saadix waaye jamono ji ñu toll ci ñu jàng nasaraan lay jël di defi murid saadix te loolu lu lu adduna da ko firndeel boo duggee ci gouvernement bi boo duggee dans les dans les directions n'est-ce pas directeur de société yi ministre yi député yi ñu ngank adduna ñoo doon ay murid saadix waaw te loo jàng bëri ar waaye yaru bëri na sëriñ Tuubaa yaa ko defal ñu ñu yeneen ba ne jar waaw loolu loolu sëriñ Tuubaa la ko defal waaw nii di sant bu baax nag rakk ju maa affecté Thiès mu dëkk fii ci koñ bi ça fait huit ans premier safar wala quinze safar damay def ak safar chaque jour fii ci koñ bi dabal ay kawe wala ci ay mburu du ko séddale ba le borom weeru sawar mu def ñetti fan ñu màggali su leen ni koy tëj nag def bis bu mag defar ay bernde togg ba mu rafet ñu daal di koy dënale séddale ko taalibay Sëriñ Tuubaa yi ak lépp jullit rek bu ci teewee ñu daal di sawaru te waajal dem Tuubaa ñu ngi leen di seere baax bala ñu laa bàyyi kàddu gi nga xam ne moom la murit saadix yëpp baaxoo di ko wax mooy jërëjëfe borom Tuubaa ñu bëgg ko sa làmmiñ jërëjëfe borom Tuubaa jërëjëfe Sëriñ Tuubaa jërëjëfe Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul waaye jërëjëf Sëriñ Saliou sama sang ba tey ci bis bu am solo bile di euh, màggal gu am solo gi di cant gi di safaruk euh, soxna soxna Fay alhamdulilah mu woote ko fii ci euh, som ah, mu bokkoon ñi mu dara jaale bés bi wax dëgg yàlla ñëw fekk Sëriñ Maam Góor Thiam mu yëkkati kaddu ci turu Sëriñ Ousseynou ñu bàyyi ko wax dëgg yàlla mu joxe ay kàddoom Sëriñ Maam Góor ñu ngi lay nuyu bu baax baax waaw ñoo ngi lay fay a di tàmbalee sunu nuyoo ak sunu la ci xalifatul am li tariqatil muridiyya Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaanal sunu dolli ko fa yàggal te dolli ak wéram di ko ñaanal itam jëwrinam ji Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall moom sëñ Modou Mbenda jataayam bi yàlla na yàgg moo njabootu sëriñ bi ak mboolem taalibe yëpp di ñaanal jëmmi sëriñ Touba ci Thiès nekkal ko fi te ak njabootam bàyyi ko ci jataay bi muy Serigne Saliou Touré ñu ñaanal mu yàgg fi lool sunu borom dolli ak wéram di leen nuyu yéen itam yéen télévision bi ngeen xamante ni yéen a teew fii ci bis i di ko couvrir muy RTT muy télé bu am solo ci dëkk bu am taxawaay du ñaan képp fu antenne àgg yàlla na leen fa seen télé bi àgg ci leeral ak wane mbirum sëriñ bi ndax jamono ju nekk na yéen a ngi ci waaye fee teew nag ànd fa jëmm ju tedd. ju baax yoo xamante ni moom danoo tudd da ngay tudd aw turam tuftal ci loo xam ni adduna ak àllaaxira gisuma lu ko gën muy xasaayid yi xasaayid sëñ Tuubaa yi lamboo na mboolem looy wër ak di ko sàkku ci ak jaamu yàlla moo tax ma ne gisuma lu ko gën ci àddina gisuma lu ko gën ci àllaaxira jën jëm moo tax sëñ Ousseynou mii ci kàddoom la ñuy yëkkatee suñu kaddu di sant bu baax ci bis bi ndax dañoo nekk ci weer wi nga xamante ni fekk muy teru ba ba muy fenk maanaam jamono jone ne yi seen xel li muy dem ci mooy ci sëriñ bi rek moo tax bis bi bi ñu ko wootee jëmale ko ci moom muy ko tedd gi Seex Ahmadou Bamba mu Rasul ndax moom bis bee da caa woote ne nan ko ci sant la yàlla waaye murid yi nag danoo am pas-pasu ni moom dañ koy sant di ko sant di ko fàttaliku ndax la in sakartum la azidannakum te man sukurullaha wala man man sukuru naasa wala sukurullaha balaa ñoo mën a gën a sant yàlla ci li ci ci bis ba faw nu sant Seexul Xaddim mi nga xamante ni lu nu am moom moo nu ko defal kon nag sëñ Ousseynou ne mu ngi sant bu baax di gërëm soxna fay mi nga xamante ni mu jël cër bu rëy bi jox ko te boole ko ko kenn ci moom nag koo xam ni. ku am njëriñ la ci dëkk bi ku am taxawaay la ci dëkk bi muy Serigne Khadim Soumaré mook délégation bi mu àndal ñëpp tàmbalee ko ci directeur mu Seck mu ngi koy ñaanal sunu borom dolli aw fanam ak Baye Sidi ak mboolem forte délégation bi mu àndal moom it mu ànd ak ay kóllëreem sëñ Pape Samba sëñ Basirou ak tamit ak sëñ Ibrahima ak sëñ aadama ànd ak mboolem ñoo xamante ne am na leen ak Serigne Khadim Akassa ñoom ñëpp ñu bokk teew ngir yàlla ak jëmmi ndax ñu tudd di la tuddkat di tudd sëñ Touba loolu jar na lu nekk te loolu tam amulum njëkk amul genn njëkk gun ko mën a jëndee maanaam dimbali sëñ Touba rek lay doon tam neen daal moo ngi sant di ñaan màggal gi ñu jëm daal nañ sëñ Touba yóbbu jàmm te li ñu ci yéene te bëgg ko ci te bëgg ko ci jëfa sëñ Touba kenn ku ci nekk sunu borom defar la ci lu kawe sa njort waaw di kaddu Baye Mouride wax dëgg yàlla Baye fal euh, am solo lool lool lool mu mel ni nag euh, kaddu gi ndar képp jamono nga xam te ni Mouride yi lool dong lañ dese si mbégte muy jërëjëf borom Tuubaa ñu bëgg koo taatañ saw kaddu rek nag ngir sant Sëñ Tuubaa santaat Sëriñ. waaw loolu danañ ko def ndax euh, sant Sëñ dafa war bépp murit boo xamante ne laxasaayu ngor jëm ci Sëñ Tuubaa sunu maam Cheikh Ibrahima Fall dafa wax ni maanaam diggante lëmës laxas ak lëmës nee na laxasaay rek loolu sunu maam Cheikh Rafaal ko wax nee na diggante laxas ak lëmas mooy boo juddoo ñu sang waaw waaw nee na loolu laxasaay rek a fi xaj te nee na diggante bi teg ko xaju fi kon ku yàlla dimbali nga nekk ci liggéeyub bi Tuubaa bi dégg nga xam diggante laxas ak lëmas nga laxasaayu fi sant sëñ Tuubaa daree war ndax inna lazina saaroo fii xidmati fa lahumul diyaara wasal janna kàtte notaire digg ajana sëñ Tuubaa nee na ñi may liggéeyal ñoo ciy dëkk barke sëñ Tuubaa waq di hawaa idi lesi na daamu fii xidmatin wa hablohol maaraamu kon ñi sax ci liggéeyal sëñ Tuubaa fu mu toll war nañu wax baat bi ngay sàkku muy jërëjëfi sëriñ Tuubaa di kàddug baay Fall wax dëgg yàlla Baye Mouride dégg ngeen ko yëkkati ci kàddug Serigne Ousseynou muy kàddug am am am solo kon nag ñu waat ko rek ndax mbégte mi ci la ñu nekk muy jërëjëfe borom Touba dem dellu siwaat ko mu fekki Bamba la ay saa borom gatang buur dem na nekk solon saa ca yàlla jël na bàyyi soxna moomi naqaru tiis wi maslam ci réew mi ku baax ka dem na ni ba génn àddina wallaay lii demetti na ci àddina ay funu jëm ay funu jëm xawma ko man tey funu jëm ku ko fi xam nañu ko wan suuf dina bàyyi soxna Waalo Mbàkke way àddina tukki ku yebu jekki way san fay li moo fi rëyoonil bi jant bu xolli yoon bi keroog ba yónnal ba diwaan demal gaay ngay tokkaleeg sa dem gi Mbàkke wàcc nga al yawma akmaltu lakum la wax li diinakum gaay di be xamul li tax ndeke de keroog day tàggee yónnent bi am na ci ñooñu déggul li xew ci laaye bi xibaar ba tooñi naa yoneen ba faatu naa kenn mënu ko dégg keroog Madina faarul xayra jaasi kanaa ku waani tey yoneen bi faatu na ma daa di lay rey Seydina Abu Bakrin Siddiq moo ko dalal keroog teewul ñu yuuxu Abubakar jooy na ba bëri saaba yépp maase tuuru saaba yépp maase tim naa fu nu Muhammadu Rasulullaay moom la ñu xam mi jël Muhammadu Rasul Falilu keroog ba mi gëne lañu xam ne kii mujj leeral àddina Bamba ngi toog keroog ci suuf di waxtaan ay si amalaami mi jooba woon ñi waxtaan am ndaw lu ci Bamba daal di koy dee ni soxna faat jaxate am na gan tey mu jël xom bu dënn booba Mbàkke bind ca suuf asaaliha ci Mbàkke Muhammadul Amin dellu dem jël xalimaam bind cay yu wér jëko ab xalana bi ba deli saaliha baaxil lana jaada bi saaliha أبقاه زمزم في سماء داره يسخل منه وجهه كاليعا أبقاه مؤمنا دياه مباركا مسال فاليعا am na bisit sëriñ bi borom daaru almanam الشيخ أحمد بخبان yi doon ja bamba moo mata ngoy bañ a tay sellal soxna jaara moo jara way soxna jaara moo jara donte Bamba moo mata ngoy bañ a bay tey sellal bor mu yëkkati loxoom taxawal diine lislaam àndul ak lu xalimaam yéeg ca kaw tund koolim géej ba jaba moom lamu lam la mu feeñal xamal ni géej xamulam njool doy na ca taxaw di ko ba nga am yow xaritu mool moo genti indi ndawal bamba di mool ba monum ndox moo wàcci gaal jógi cay doo kabbar ñi ay soor bay bay laat borom bilal li ma soxna Mariama maam jaara gàcce nga laama ku fi baxi sa doom ma ay seexam lañu seexale am na baax te am yéene am na ngor te am diine maam jaara jar na waxtaan royukaay la bu feeñal sol ay étes otes xaw ma xaw ma étes ngeen ñëw ci biir baas bi raser les sièges yi ma xool ngir jëmmi sëñ Touba suñ gënee ni sëñ suñ jataay bi sëñ Xaadim mën nañu fee fekk ànd ak ñun ci jataay bi nekk ak ñun moom sëñ Touba Xaadimul Moustapha xam ne nee na sama ñaar ñu ne fu nu ñaaree maa leen ñetteel man sëñ Touba fu nu ñettee maa leen ñeenteel bu ñu ko gëmee nañ defar suñ jataay bi ngir jëmmi sëñ Touba loolu mooy dëgg. ay murit bu nu jataayoo seen jataay dafa war a jekk soo ñëwee jàkkaarloog ñoom xam ne ñi ñu teewlu sëñ Tuubaa lañ tant tant bu toll nii sëriñ Xaadim defal ay bernde woo sa nit ñi nga xamante ni danga am yaakaar ci ñoom ak cofeel yëgal leen bis bi ñu ñëw ñooñu buñ ñëwee ci bis bi toog war nañoo gis ci bis bi loo xam ni su ñu demee kat bay siidi danañu bis bi ñu déplacé woon taal suñuy oto def délégation bu mag ñooñ ñu am pëstéef a ngi nii ñu amub yar a ngi nii ñu ñoo xam ne ay exemplaire lañ ci dëkk bi seenu taalibe lu mat a roy la moo tax ma bëgg jataay bii nañ ko defar na siis yëpp ran yëpp toog ci biir baas bi maa ngi ñaan képp ku ronu baas bi nag li waawul xam di ñëpp yéen ñëpp ko xam ker ga nga xam ne ëllëg parisol ba nga xam ne yonent bi bu ñëwee ñoddi nañ jant bi teg ko ci boppi nit ñi yuur yi di baax ker googee nga xam ne ku ca keru ca ngay keroo muy liwaalu am di maa ngi ñaan ku ronu baas bi yàlla na nga dugg ci parasol bi yonent bi waaw parasol boobu foofu dafa tardé barki Sëriñ Bamba tànk bu nekk juróom-ñaar fukki junniy tànk ñoo ciy tegaloo loolu du ay caaxaan bàyyi sidi ñaari tànk ñett fu mu tegaloo sëñ Moodu coono am nee nañ juróom-ñaar fukki junniy tànk ñooy tegaloo ci bisu pénc bi yawmal xiyaamatul akbar saa borom wàcce jant ba mu tiim suñu bopp yi suñu yuur yi di baax waaw sëñ waaw yow moom sëñ mu sekk en tout cas dugg leen ci baas bi rek moo gën a wóor barki sëñ Bamba léeg-léeg nag nga dégg ñu am ñu wax ni làmmeñ yu am barke yàlla rek ko xam xam nga inna allaha yaalamu xëy ba samawaati wal ardi wallaahu basirun bi ma taamuloon xañ na moo xam moom yàlla waaye léeg-léeg ku mel ni man di wax am ku toy toll di wax naan daal làmmiñ yu am barke yàlla rek ko ko xam mais léeg nga wax nit dégg la ba noppi du gëm ni sa làmmiñ yu am na barke waaw dégg la nga wax ba noppi mu xam ni làmmiñ yu xam barke bi am barke yàlla ko xam de du jàpp ni sa barke bii sa làmmiñ wi barke bi mën na cee nekk ba bu ëllëgee li waawul xam di yow tiim la keral la ca keru aras la barki sëñ Touba moo tax olof léeg-léeg day wax lu mu gëmut waaw dégg ma dañ koy wax làmmiñ wi am barke yàlla rek ko xam moom moo am xëy ba ba noppi yow tam nit di wax doo gëm ni kii làmmiñ wi mën na am barke am kon loolu ay sew-sew la lii li ñu ci jublu mooy suñ jataay bii nga xam ne dañ koy waajale bis ban la 18 ca lañ jëm bay maanaam lii bu doon match la ma ne échauffement la murid yi di xiir ci sëñ Touba di xandaalu di namp ci sëñ Touba di regg di dolli ko sëñ guddi yi ak bëccëg yi gis nga bu ñu demee ba àgg ca màggal ga day fekk ñu mandi ba ni tat te naan man dee ci gën nag barki Sëriñ Bamba dafa am saa benn maam bu ñu wax Baye Birane Mbaye daa fekkee ak xaxar ñu leen koy tere man Birane Mbaye dugg ci biir xaxar gi ni leen bu mun ta xumb na ngeen ko bàyyi barki Sëriñ Bamba moo tax boo xësee bay def defal xam nga li Sëriñ Tuubaa mën ne ñëpp mooy engagement dafa ñëw ci réew mi fekk fi ñëpp kenn ku nekk am ay mesures sëñ Tuubaa jël yitte ju gën a kawe seen yitte jooju yitte ju gën a kawe seen yitte jooju àdduna jaaruwaay lañ ko defoon def ci càggu téefug ëllëg ngir am ko ci jaar ci jàll sëñ Tuubaa fexe ba moom àdduna ci jëmmam sax la njëkkee doomu aadama ju mus taxaw ngir moom bakkanam amut kenn xalaatu ko yàlla mu ta sàkk ku xalaatam moom bakkanam sëñ Tuubaa ni malaktu nafsiya malaktu nafsiya mu teg ca leen wa sëh sëhtu layin nag ma bàyyeeg sama bakkan te nga jël seytaane sànnil ma ko ca àll ba mu sori ma mën sëñ Tuubaa war xaade lii nga ma wala xawaa sama bànneex kan moom mu sax xalaate jël ay bànneexam mu jëm àjjana te demagoo de deewagoo defagoo dara engagement yu garaaw la sëñ Tuubaa doon jël moo tax yitte yooyu ci la murit yi ne fi mu ne nii amatuñ ay dimension yu ndaw portable yaa ngi dem xoolatuñ R7 pet dara ñu ngi jaay lépp xam nga lu tax sëñ Tuubaa lim nu lebal kenn mësu koo lebal nit ci kaw su bakkanam lan jox billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa sëñ Tuubaa neen fi ma jaar tubaab bi jaarale ma fa amul benn tant tant boo xamante ne loo xamante ne tubaab bi def na ko ba koy def mu leer man man sëñ Tuubaa su ma ci jógee dinaa ci jële wàlla bakkan déedéet bi koy dugal ndakaaru dafa woon na ne bakkanam dafay des bi mu koy jëlee ndakaaru dugal ko ci géej gi jàppoon na ne sëñ Tuubaa jàppoon na ne day des ci géej gi bi mu ko yóbboo Gabon taalal ko pax moo xamante ne téeméeri mètre sëñ Tuubaa jël nañ ko ba baxal ko ci biir cin cin cin cin ci biir cin xam ba mu bax jël sëñ Tuubaa soob ci biir cin liy bax muy bindi xasaayit jërëjëf kon ku am koo ku amee jom noonu kenn waru la ëpp jom moo tax gis nga damay faral di wax ni fulla la ñuy àndeeg sëñ Tuubaa ba doo ko rax jom lañ koy liggéeyalee ba doo yëg coona waaye ngor la ñuy ànd ak sëñ Tuubaa. ndeysaan ndeysaan. ak loo ma ko waxal doy musuma taxaw si biir géew. ndeysaan bi ma jug tey ma ko ndax xaay moo ma bëggal boppam. dëgg la. joxuma xaalis dara waaye moo ma bëgg. dëgg la te yàlla tax. ndeysaan parce que sëñ Fall li may wax dafa nekk. billaahi sëñ bi xam nga lii. ndeysaan man may première njëkkee. ndeysaan ndeysaan. dama woon na ni da defoon ma ko dara nag. dëgg la dëgg la. xamal tax ma bëgg te yàlla tax loo ma ko wax doyu am ful la ko am fayda billaahi gis nga sëñ Xaadim dëgg la loolu ñoom Baye Sidi ni mën nañ ci seede gis nga tey jii li ci dënnu Baye Sidi mii ne ci sëñ Modou ne ci sëñ Xaadim ba ci sëñ Ousseynou ak ñoom Pape Samba ñi ñu àndal ñëpp ba ci kii nga xamante ni mooy DJ Talla doon jàmbaar lool mën a wax ci nit ki lu baax nag gis nga nit ki lu mu amul du ko maye munu koo joxe nit ki li am rek moom ngay joxe gis nga sëñ Xaadim moom rek nii lay mel lii la am lu baax la am moo tax lu baax rek lay def xamul lu bon du ko dox du ko wax du ko fekke it yàlla suturaal na ko ci sëñ Xaadim kenn mus sa dox kenn mus sa dox ci dëkk bi cees ba cees daj fekk sëriñ Xaadim ci lu dul noona nga dégg ko yàlla xam na ne mus sa am wallaahi alxasin musuma ko dégg métier téyër mii ku ko rafetal la léeg-léeg sax nga dox ba ci benn benn atelier fekk benn client naan ko nangam ak nangam ak nangam mais xaadim mosoo ñëw mosumaa ñëw atelier bett ko fekk benn client di ko brouillé ci ay ñaw mos sa am loolu day wane respecté bi mu respecté boppam ak xam gi mu xam boppam ak xam fi mu jëm te it xam ne tamit école la dafa nekk ci école di jàngale ndax télé ku fa toog di wax xanaa moo télé ni nga yar yar bi ngay dóor bi ngay dóor gars yi bu dee benn la fukk nga koy dóor sa bopp saa yoo toogee télé ni bàyyi leen sàcc yow moom noppee nga sàcc yow waaw waaw barki sëñ Bàmb moo tax yar boobu moo ëpp yar bépp kon sata yow Maamu Sumaare rakk la ci sëñ Xaadim waaye déggal na ko déggal nga ko topp nga ko ñi nga li ngay wax ni ci la nekk boo meloon ne leen du la may njëkkee barki sëñ Bàmba soo meloon ne leen du la taf ci boppam ndax Xaadim ku am fulla la li koy gis nii woyof na nangu na ak taalibe waaye ku am fulla la na sëñ Tuubaa ànd ak yi rek la ànd ak ñëpp kenn ku ci nekk fasa fasa lu baax tàmbalee fala sa ànd ak moom tàmbalee kenn ku ne fasal lu baax yam fala sa sa ànd ak sëñ tubaa yam kon àndub sëñ Xaadim ma nga noo gars yi jërë ngeen ko damay bañ a téye waxtu lu bari hmm. sant nañ baax sëñ Abdou Guèye ngi lay siyaar kii sama mbokk taalibe la ñoo bokk fédération Xidmatul Xaadim bokk lu baree baree bari jëmm jii di sëñ Fallu sëñ Fallu la sëñ Seexuna sëñ Seexuna Ka bokk ci waa kër sëñ Moussa Ka di jàmbar lool ànd ak sëñ Abdou Guèye mii fii ci dëkk bi di som di liggéey sëñ Touba liggéey bu wér ñu ñaan suñu borom yàggal la fi te wéral la ñoo ngi jégalu kaddu yi di wàcce foofu suñu kàddu di jataale lu ci dëng rek nañ ma ko jégal nag waaw wasalaam jë jégalu bu baax bañ la waree dugal yàgg na lool waaye incha allah bu ko defee rek comme fi temps bi tànc rek dama bëgg suñu noppee rek ñu dogot dogotee ko ndax borom sono bi Basiru ñu ngi tuub bu baax di jégalu ci waxtu yi ñu ngi koy tuub bu baax mu ngi may soññi léegi moom sunu soppe la sunu xaarit la nit ku bari wala suñu xaarit boobu ba tey bàkku moom ñoo bokk daara xudóos fi temps bi tolloo tax te li ma bëggoon mooy sëñ maam góor c'est national sañu ma laa rëq ba sekk gëj naa rëq sax dama bàyyi rëq boo gisee ni ma ni ma sedde tey sax xam ni banaa rëq mais baal ma rëq sekk mun naa rëq ah ma rek ah ki may bëgg a jox kàddu gi mooy waxal ki nga xamante ni bii non gaaw a noppi de bu ngeen kii damay noppi de <laughs> sëñ Abdou ki may jox kàddu gi bàyyi Seydou xaadim sumaare lay waxal jàmbaar yi daaru xudus si jàmbaar yi sëñ Mbàkke Mouhamed ji borom tey fëg bay laa Cheikh Maguidène xariloo soxna loo Jóob Mor Njàndam ma Samba Gàdd Ndaak Ndaak Mareema ak Mudu Fa biñ tamataar numbee taw la ca Ndaam tafsir la ca Gédé Germi la ca Kokki waaye Sëriñ la ca Touba Xaadim Rasuul ay maamam Balla ak Maaram Aysa ak maam Sadio rek maam Mor Jaara Sëriñ Cerno Birahim Ndaama la ca Daaru góor gi demoon Gabon jaari maa yombeeg ndimbal wëri bàyyi bas ak baaram am itam ak Cheikh Mbacke gi semmal Fuuta gàgganti gànnaar bàyyi sëñ Fallu Mbacke Fallu bu sa càmmeñal ma lay ma kunta bàyyi sëñ Abdou Karim Mbàkke borom dindi makariman axlaani jaayi maam jaar ak ndey busu kii yegale jumaa ji miire armeel yi ba max ñeenti goudron yi ba Touba aji màkk yóbbu juróom-ñetti téeméeri béyti laay la raam sekk ku nu jàpp mu ni bàyyil mu dem kooku Cheikh Mohamed al Fadal di sant nag waa daayira bi nga xam ne ñoom lañu fekk si fii ci dëkk bi fii ci som ñu ngi leen di sant di jël di del sant gi ci jëwriñ ji di ko sant bu baax gis nañu taxawaay bi gis nañu pasteef bi ñu ngi koy ñu ngi lay sant bu baax di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala yàlla ne yàlla dëgëral ba liggéeyu Cheikhul Khadim bi bi ngeen ko bëgg yóbbu ngeen àggale ko baak seen sago di ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal Serigne Modou Mbenda yàlla guddalu fanam di gërëm nag ñi nga xam ni ñoom lañu àndal ñëw fii comme sëñ Ousseynou Ndiaye moom muy nit ku baax du nit ku yiw ku sell ku bari valeur Ousseynou bi ma la gisee rek li ma la wax mooy sama xol sedd na man maa xam li tax mu wax ko ndax sa digg xaadim altine talaata rek bis doxu ci di nuyu sëriñ xaadim ak saa ni ko jëwriñ waxee rek ni ko som nga njëkke waaye bi mu ñëwee ci waa asxaabul jannati la mujj rek jaare fa muy wàkkal sëñ Mounirou Mbacke muy sëñ Modou Fata Karim mu ma Massamba ñu ngi lay gërëm sëñ Xaadim Akassa di gërëm délégation bi Xaadim àndal yëpp rek ñoom ñëpp ñu ngi nii toog soxna yaa ngi nii toog ñëw jëmmal si ko di gërëm suñu président muy Mamadou Seck ñaari kasket nag laa fi tooge benn bi groupement bi laa fi tooge waaye tey bu état bi fi nekk maa fi toogal état ndax tey damay fayeeku ci salaire u état kon su ma nekkee chargé de mission à l'Assemblée nationale kon maa fi teewal état kon xaadim délégation bi riche na waaye lépp dañ koo jël dëxañ ko def ko ci gafaka gi rek di ko liggéeyal sëñ Bamba ñu lu dul sëñ Bamba ñëruñu sëñ Bamba Cheikh Rafa rek la ñuy dund dunduñu leneen sëñ Xaadim muy xale bu baax di ko am yëg te yëg googu rek mu am solo ci doomu aadama kenn ci ñun gisul suñu borom waaye yëg na ni yàlla am na moo tax yëg dafa foor yëg googu mu def doomu aadama yi moo tax ñu def ko nii mu def mu mel nii mu mel ndax buñ la duppee ba buñ la duppee Xaadimu Rasuul borom borom borom bés biñ la duppee. tey ñu jël ab bisam dara jaale la ko loolu du hasard ndax ba pare nga ñëw bokk daaru xudóos nga xam ni daaru xudóos sëriñ Modou Moustapha di taawul Cheikhul Khadim sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma taxawal daayi daayira ci yoonu murit nga dem ci Cheikh Rafal sëñ Modou Moustapha di taawam sëñ Cheikh Fall bàyyi góor ñëw taxaw taxawaayu boobee ba Touba mel nii mu mel moo tax bàyyi Fall gi ma it yoonu murit sëñ Bamba rek ay sëriñ Cheikh Rafaal rek a fiy taalibe sëñ Bamba initié yoonu murit mais Cheikh la ko financé kon tey boo amee bés bu toll nii la ma la waxoon ca marché ngelaw mooy mooy mooy mooy mooy doog a tàmmali mooy liy ñëw moo ëpp doole fuuf lii nga gis nii jarul coow. raj-raj jaa ngi ci kanam lu baax da ko am incha allah parce que wekk nga ñi nga bokkal jamono jox nga nit ñi cër am ngay teggin am nga yar dal nga bëgg nga Serigne Touba te loolu rek dafa doy bëgg Serigne Touba rek dafa doy loolu kuñ ko seereel ba jël bés dara jaareel la ko ñu bind ko ci alluwa ja nga xam ni tey jii malaaka yëpp ngi jóg. di taxaw di màggal bisub safar bii di weer wi nga xamante ni mooy weer wu tedd wii nga am ci bis boobu ñu tuddee la xaadim rasool nga nekk bokk daaru xudóos kon xam nga ni mbir mi tàmmali na de am na loo xam ni su ko nit ki di am suñ boroom di ko xëcc di ko teg ci loxoom da ngay yeew rek yem ci ndax nit am na doom tëdd ak moom ci biiru lal xamoo kañ la sa doom di màgg da ngay yeew rek gis liir bi jekki-jekki di ñuul noonu la am ak ñàkk mel suñ boroom day xëy sottil ay mbiram te du tàggu kenn sëriñ Bamba daa dégg jamono moo tax soxlawul àdduna àddunaa koy soxla mais sëriñ Bamba soxlawul àdduna moo tax moo koy wax léegi Pape Seck ma ne ko màggalu ren gii wax naa ko sama waa kër su ma dee woon sax ngeen naa dañuy xaar ba màggali ba ñëw ak def nii yàlla bu ma leen jiitu ndax màggal gi baatin da cee dugg bu nit ñi xamul moo tax mu Muntaxa waxe fi mu waxee sëñ Bambaay numéro 4 le 4 septembre lañ ko wowoon ca Ndar le 4 septembre la màggal gi le numéro 4 de Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul sëñ Muntaxa toog seede li mu fi wax tere li mu fi tere digle li mu fi digle ngay toog naan c'est-à-dire màggal ga nangam bañ fay tere nangam ak nangam kooku da ngaa dof te xamoo li xew. buñ la yoree ci bàmmeel ak ni mu lëndëme nga jël ni takk ba mu dëgër. nga ni ko ci mëbax jël suuf jël ko ci kawam ñëw toog sa kër sa xel di dal da ngaa dof kooku sëñ Bàmba rek a ci man dara du ay naxe de sëñ bi kenn sasalu ko fi de li nga fi maam ko sëñ bee ko def te da koo bind maa ngi koy nettali Pape Seck tijaani dañ ni bu ndee wasifa lal mbalaan mi yonent bi day wàcc ci mbalaan mi ñoo ko wax rajo laa yor di wax tijaan yaa ngi may dégg suñu lalee mbalaanu wasifa yonent bi da ciy wàcc kon jaata jàkkaay lal mbalaanu wasifa kon yonent bi dina bari ci muy wàcc de Cheikh Saad bi abi ni bi ñuy tabax kaaba gi dafa manqué woon birig man maa soppali ko birigu wurus mottali ko waaye kenn du sëñ Bàmba moom dani kii moo nekk ci kaaba gi ñëw ñu di ko Touba kataballaahu taala ana bayti arab tarfatu malaykatu ila Touba wa fi rasulillahi billahi wallaahi tallaahi barke alxuraanu karim yàlla bu ma dugg Touba yàlla naa xëy ñu ñu dindi sama contrat ensemble maa gént kaaba gi yonent bi toog ci ñu ubbi ko ma ñëw Serigne Bamba tiim ko yonent bi toog ci suuf mu ma loo fiy wut ki ngay seet fii nekkul fii moo nekk fa nga jóge man ku ma jox paasu màkk déw ma man moom ku ma jox paasu màkk déw ma man maa ngi fii ci Touba rek saa mu ñëwee dinaa fekk yonent bi moom incha allah boo demee màkkaloo da ngay sànni jamra nee ñu da ngay def lii dem li loolu baax na baax na waaye saxaaba yi bi ñu toogee yonent bi yonent bi dañ leen am na lu gën aji màkka am na lu gën koor am na lu gën julli ñu ne ko yonent bi wax ñu lan la mu ni wax dëgg te di ko jëfe moo gën julli moo gën woor sa gëg kii bi entraînement la rek Pape Seck góor yàlla bi ñu ñëwee wax ci moom ni ko ndax daa nga julli mu ne man mosuma sëlmal laa ilaha illallah moo gën a màgg julleeg woor te Cheikh Rafal du ci jóg mukk kookoo xam sëñ bàmba kookoo ñu may lii ñu am ko bañ a xam kan mooy sëñ bàmba kon xaadim sa bés bii munta bañ a mel nii parce que man damaa jagadi woon jamono yëpp mais bu ma doon raamit loo xewle dinaa ci teew ndax dangay rakk ju ma jox ma cër man sëñ jili waa daan sugay sama maam mais dund ma loolu man sëñ bàmba laay dund sëñ bàmba rek laay yëg di ko xool yenn yi tiitar la di ko wutal sa bopp sax erreur la nañ leen delluwaat doonub taalibe nañ leen delluwaat xool li fi sëñ bàmba digle ñu necca loola te yam ca bañ a xel leneen nit nag dina takk wurus du ko xàmmee ba di ko jaawale ko përëm waaye sëriñ Bamba képp ku ko am doy na sëkk ngay wut leneen kon xaadim jërëjëf jërëjëf jërëjëf Ousseynou jërëjëf ci ni ko defee ndax sëñ Cheikh Rafaar da ngay dund yow itam moo tax nga jël loola dëxañ ko ci biir Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul nga delloo ko cër ba Cheikh Rafaar ngay dund looloo tax nga def li nga def kon ñu ngi lay jaajëfal yow tam di di di kontaan uh, waaw parce que yaay xaadim rasul mooy Cheikh Rafal te Cheikh Rafal sëñ Bamba rek lay roy kon jël leneen di ko tollal sa daa wóorul parce que turandoo turandoo bi ñu la tuddee war maa war maal googu moo jaadu ci kuy jullit kuy yëpp taalibe rek dalaa war a xoole jëmi Sëriñ Tuubaa ndax dañ la koo duppee directement kon loolu moo di taalibe kon loolu ak cant la ñu la ciy sant bu baax di la gërëm di la sa taxawaay ci dëkk bi ndax li maam góor wax da ngay li li ñuy pousse machine boobu ñu nekk mooy di di ñaw di boole moom ci nga nekk mhm. moo tax Mamadou mii mën a jóge doxe fële caali la doxe ba fii ngir sa jëmm ji te képp kuy téyar nekk ci région Thiès bi moo la jiite mu ngi nii toog mooy sa kilifa bu nee bàyyil nga bàyyi su ma ne woon tegal mikoro bi ma teg ko donte am na ay ndomba tànk yu ma waaye mooy sunu kilifa donte ñoo ko magit waaye mooy sunu kilifa ndax kilifa du tuut kilifa nag boo ko yëkkatee ñu yëkkatil la ko boo ko tuutalee ñu boole la ak moom tuutal kon yëkkati sa kilifa dalay yokk sa daraja te wàññi sa daraja dara moo tax ñu lay ñaanal yooyu itam yàlla yàlla yàggal taxawaay bi yàlla yàlla wératal yi ndax tele bii di LTT TV ci sa xalaat la génne ba nga mën koo taxawal jël xaadim teg ko sa wet def ko directeur programme mu nekk ci tele bi di liggéey loolu maa ngi la ciy sant di la ci gërëm parce que maa ngi xaadim mii sama ñaari bët yi laa jël teg ko ci moom sama xaayim la moom ñoom papa Ndiaye ñii ñoom ñëpp samay rakk lañu mais sama njaboot gu ma déggal lañu di gërëm sëñ Pape Seck ñu ngi lay gërëm bu baax gis nañ taxawaay bi gis nañ tamit ni ngay liggéeyee ci télé bi ñu ngi lay gërëm gërëm nag ñi nga xam ne ñoo gunge xaadim ci bis bi bàyyiwuñu kenn gis nañ leen taxawaay bi ñoom ñëpp gis nañ ko wax dëgg yàlla bàyyi ngeen yitte yi ñëw di gërëm bafu mbeng mi nga xamante ni bii day kenn ci xaadim moom tam nga xam ne taxawaayam ci xaadim moom dafa bëgg xaadim ba yemalewu ko ak dara kon ba ñu ngi koy gërëm moom tam bu baax xaadim nga koy sant bu baax a baax sant gu am tàmbaliwaay amul yamuwaay di wax ne moom bafu léppam la baayam la xaritam la doomu ndayam la magam la léppam la kon bafu xaadima nga lay sant ci kanamu Sénégal yëpp di lay gërëm di la sant di di di wax nag ah, ah, ki nga xam ne mooy jëwriñ ji war a ñëw jege si sëñ Abdou ñu jël addee ji ana ana soxna si tey moom itam ana soxna fay waaw soxna fay jege si Euh, soxna Faye mii ci télé bi la nekk di ci yëngu président moo ko wax ne xale bu yaru la xale bu baax xale bu teey xale bu am diine yaayam a ngi nii toog jëwriñam a ngi nii taxaw moo tax ma woo ko woo jëwriñam mu ñëw di leen seereel ni rek xale bu yaru la yal na la yàlla dëgëral yal na la yàlla def mag te bu la defee mag yàlla def mag mu am ñam yal na la yàlla taxawu yal na la yàlla yëg ci barke Cheikhul Khadim sëriñ ab yar moom kenn du ko def ba ñu di ko xam eh, jànni baa di ko toroxal waaye gis nañu ko am alal lool reew ñu boole kook alalam jànni waaye mosoo dégg ko yaru ñu boole kook alalam di ko toroxal musta am kon lii nga ne te moo mooy dëgg am kilifa wéeru ca moom di ko déglu bu nee la bàyyil nga bàyyi bu ne defal nga def bul xool dara bul gis dara bul bëgg dara te lépp dina mës a daje sa loxo tege lii tàmm libe rek la sëñ xaadim gërëm na la sant na la président Mamadou gërëm na la sant na la sa yaay ngi toog ñu lay gërëm ci kanamam di la sant di wax ni say morom yi nekk fii nañu roy ci yow xool sa taxawaay bii nga taxawee ndax kat lii nga def rëy na ci ñun moo tax ñu di la sant di la gërëm di ko seereel jëwriñ ndax lii bis la boo xam ni ñun ñun moom amuñu lu lu bis bu ëpp lii Sëriñ Bàmba rek lañ bëgg moo tax bis bii nag nga jël ko xalaat ko bokk ci xale yi ne ci télé bi yàlla na la yàlla jàppale yàlla na la yàlla taxaw suñu waajuru jigéen wii yàlla bu kenn séddal dara ci ginnaawam ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax sëñ xaarim jëloon addiye jii jëloon ko rek jëwriñ di ko barkeeloo ci bis bi ci wàccaayu màggal gi boole ko xeeb ko lool lu mu natt rek xalaat ko rek bàyyi loolu xalaat ni soxna daal xawma nu ma koy def ndax lii mu def rëy na ci man xawma nu ma koy def moo tax délégation bii ñu ñëw àndandoo ñëw teew jàppale ko ci bis bi gërëm nañ leen sant nañ leen di ñaax waa daayira bi rek ñu gën a jàpp comme ni nga ko waxee ndax ab daayira kat daje la ak dajale waaye ca daayira ba rek laa bokk kenn waxul loolu daayira donc ka cay ñëw di fekke réunion yi mooy dimbali daayira ba na sa sëñ Cheikh Mbacke ngay defal ma loolu la wax waaye bu nu nee sas yu nangam nga daal di dem wuti nag yoon woo jaar te bu ñu woowee stade benn équipe bay football nga àttan na jël sa xaay joxe ko ci te téléphone bu seer yor xaay yor euh, dàll yu seer defaloo sëñ Bamba dara bëgg nag boo légee nga am dara mënul nekk dangay def dara ñu jox la dara nga am dara mën a doon dara jërëjëf. sëñ bi tur wi Baye Sidi Diop jërëjëf kàddu yi rafet na yàlla yàlla fay ci barke borom Touba sëñ maam góor ci am sans waaj yi jërëjëf waxtaan wi am na solo sëñ Mouhamadou Seck sëriñ Xaadim jërë ngeen jëf. sama xol sedd na lool ci seen ñëw gi ak seen taxawaay bi sëñ xaam nag man jàpp gu ma la jàppoon tey yokk na ndax musuma xam ni magu Mamour Soumaré nga wallahi musuma koo xam soxna nag mii sunu soxna su baax sii léegi laa naan ko nag ma bal àq ndax li ma lay sànni ci xeer lu ne lay wax sa waa ji naan ko doo takk ñaareel rek amul lu ma ko dul wax ngir nogay ngir baaxam gu mu baax ñun ñëpp dañ ko koy tooñee yàlla miin tim xam na ni bu guddee ñëw réunion xidmatu xadim dana ko nogay ko téye woon lu ne lañ koy wax kon tey lu ma la jàppoon rek yokku na noo ngi ñaan nag ci barkeb sëriñ Saliou ndax man sëñ Saliou rek laa yaakaar moom laa bëgg nee naa leen njabootug Serigne Touba gépp gépp laa bu newoon muñal ñëpp ba mu des Serigne Saliou ma jàpp ci Serigne Saliou bu newoon nit yàlla yëpp bàyyil ñëpp kenn nga mën a jàpp ma jàpp Serigne Saliou bàyyi ñëpp ndax man moom képp laa bëgg ndax nu ma mel mooma lu ma xam mooma lépp lu nekk ci man Serigne Saliou ko def ci man moo tax yéemalewu ma ko dara ci àdduna jëlee na ma fu ne yóbbu ma fu ne won na ma lu ne wax na ma lu ne ba léegi nag ba demee ba léegi ba léegi maa ngi koy gis mu may wax may dëgg mu may digal may def mu may taree may feebar mu may faj barke Serigne Saliou ah kenn du kooku moom Serigne Saliou kon noo ngi ñaan seen ñëw gii yàlla doon seenu yokk ba faw addee jii nga yëkkati jox ko sunu rakk ji di sunu lépp yàlla na ko yàlla ful mu doon i milliard yaa ngi ñi nga àndal ci barke borom Touba ndax bég nañ ci lool jëmm ji wallahi alazim dama koy sant ngir Serigne Touba ndax kii dama yoroon ay soxna ci daara ji yar leen ba nu màgg ñu ci bari sëy am ci ñoo xay bi ñu sëyee dama doon wax fu may jëleetu ñu mel ni ñoom barke Serigne Touba ndax am na ñoo xay bi ñu sëyeeg léegi seeni doom mat naa sëyi tama yoru leen ci daara ji ñoowoon pas-pas lool may xalaat bu ñu sëyee mbaa soxna yi daara ji du tas wala mbaa dinaa amati soxna yu am passif moom mu ñëw doot toog tàgg nekk ci daara ji doxin doxoo xam ni mbooleem fu soxna yi ma a yóbbu liggéey bi mu ñëwee da ko yóbbu fu ko faw xa ndax man waa daara xam nañ ma ndax li fee sama bët daa bariwut te gondi ma daa yombut napp ma nit mënu ko waxoon naa ko benn waaye bis yi bi muy ñëw di yéeme ñëw la ma ne ko jombi naa bu yàgg sëriñ Saliou jommal na ma keneen mënatumaa jommal defal ndànk waaw damaa nekk Touba jóge si Touba ci Serigne Saliou ñëw dal ci keppaaru Serigne Saliou Touré ku lay jommalati ñaar fukki at def naa ko Serigne Saliou Touré ku may jommal wax na ma ko nag sëñ Saliou Touré wéet nag moom mu wax ma lu ne waa daara ji dem nañ fa sëñ bi wax ma loo xam ne néew na ku ko sëñ Saliou Touré wax sëñ Saliou Touré néew na muñu ni say jëf ëllëg yëmal xëyam ci kanamu sëñ Touba laa wax nanu ko ci jàkke ji ñu dem siyaare ko mu ni seen i jëf ëllëg yëmal xëyam ci kanamu sëñ Touba laa koy seede nit nekk na ak sëriñ Saliou Touré ñeent fukki at dégg ko barke borom Touba kon loolu ab dox a koy maye waaye loolu kan moo ko defal sëriñ Saliou kon man duma jay nit loolu waa daara ji xam nañ ko waaye kii Serigne tubaab dong laa koy bàyyil te li may wax ñii sama rakk yi ñoom ñëpp mën nañ koo seere waaw dëgg la amin barke borom Touba daaw dama ko woo ba mu ñëw sëñ xaari ma ni ko xam naa ni am nga fooy dal ci màggal gi jëwriñ nga waaye bu ma soñoon da ngay bàyyi dal yëpp nga ñëw ci dal bi mu bàyyi lépp takk ndiggam ci màggal gi nekk ci waañ wi di liggéey di liggéey ba màggal gi jeex tàkk te man xam nañ ni man damay aalu man damay aalu te damaa tàng waaye lu ma ko songee ci liggéey bi ak lu ma ko mën a wax da day dal rek ni jëwri noo ngi tuub waaw léeg-léeg ma tooñ soxna Aysa Salim ni ko nag yow soxna Faye la gën a yaroo moom it ku baax la waaye loolu ak nangoom moo ko may moom du jëwrin de daa topp ci jëwrin waaye dafa mel ni mooy jëwrinu mbooloo mi ndax jëwrin ja xëy na léegi am na boroom kër lu bari talatu ko waaye muy doxal liggéey bi di organiser tout tànk yi noo xam ni sama xol seet na ci lool te mboolem xolu waa daayira bi yépp seet na ci kon kii lu ko nit defal nun nga ko defal nu ko nit jàppe nun nga ko jàppe bët bu ko nit xool xamale nun nii nga ko xool bu dee lu baax nun nga ko xool bu dee safaan it nun nga ko xool ndax ci nun la bokk te déggal nu te ànd ak nun liggéey bi ngir sëriñ Touba waaye la ma gën a neex ci moom it daa yem fi ma ko yem loo ndax lu tax ma wax ko mënoon naa bari xarit Serigne bu ne mu ànd ak moom ndax cees daa rëb ta bari bu rax Thiès daa rëb ta bari bu rax te man dootuma gone xam naa lu bari ci yoon wi saa yi maam Serigne Touba lan àndaloon ñii sëñ Touba seexal leen ñii Cheikh Ibra Fall gërëm leen ñii ma Massamba Diop Sam gërëm leen ay mag yi juróom-ñett fukki atama yar saa maam fekk na jamono siñ Tuubaa xamal ma lu bari ci yoonu murit yor lamp buy tàkk xàmmee naa ko kuy xurxural xàmmee naa ko xaritool wu kenn njaboot suñu la xaritool fa la nekk ñooy ay nitam ñoom lay àndal loolu neex na ma kon yem na fan ko yemloo ndax ñun Sëñ Saliou mooy suñu kilifa ci dëkk bi kon moom na ko muy ànd ak ñeneen ñun ko soxna fay baal ñi ngay àndal defu ko de te bu ko defoon it duñ ko ci bàyyi waaye daa xool ñun fani fanu nekk muy sëriñ Saliou Touré mu ànd ak ñooña waaye nag li ma wax sànq ni moom noonu la mën a mel ndax soxna njaxat sill soxna Serigne la moom lañ ko tuddee kii toog soxna Serigne Touba lañ ko tuddee mooy soxnaam soosu nga xam ne ndeysaan ab sikkin la amoon waaw ni góor ñi saxe sikkin noonu la ko saxee woon soxna njaxat moom lañ ko tuddee kon jër na ji koy baax ak bëgg sëñ tubaa ca turandoom wa lii sëñ ji bi ñaan nag léegi noo ngi koy ñaan ñëpp ñaanal ko ko nooy ñaan ci barkeb Serigne Saliou mi nu yaakaar yàlla na ko sunu borom may borom kër gu baax gu ko taxaw gu ko yor gu ko yërëm ndax yéene nag ko te pas-pasam ci Serigne Touba dana ko may loolee kon na ma ko ñëpp ñaanalal sant naa ko gërëm naa ko ndax kër gii maa ngi koy wax Baye Moustapha Thiam mais démb sama këre du ma ni sunu kër dama naan sama këre sañ naa fi lu ne sañ naa ñëw jaaxaan ca saal bee nit langam laa bëgg a réere ñu toggal ma ko maam Yaasin ñii day togg ay xiwal di ma ko sama kër ñoom ñëpp ñu bëgg ma keroog bi soxna Ami Njaay mi ñuy fàttaliku bala maa joxe kàddu gi dinaa doxe joxe aw dog ñu defal ko ko bi mu génnee àdduna dañ maa wamul ñu ne ma méngoo amuñu luñ ciy dogal ko yóbbu Touba man maa ko waroon a jullee waaye Cheikhouna mais di dereti sëñ Touba ndax sëriñ Afia Mbacke rakku maam Cheikh Anta moo jur soxna ummi soxna ummi jur baayam waaye muy setu sëñ Moussa Ka ma ne ko yaa ma yow laa yaa yow laa gën a wóolu sama jëmm ji te yaa ma gën a ragal yàlla gën ma ëpp ma xam-xam demal nga jullee ko loolu cër passé ku la wóoruwul doomam du faatu man la mi ngoog kon kër gi aw ma seen fay ñoom ñëpp sant naa leen gërëm naa leen kon nag soxna addee ji noo ngi ñaan ci barke borom Touba balaa yàgg yàlla na ko nangoo sa première cadeau nii waaye noo ngi ñaan ci barke borom Touba mu doon ay milliards yàlla defal la ko defal ko ñi la ko jox ak ku fi teew ci barke Serigne Saliou sunu yaay sant nan la bu baax ndax yàqoo ci dara kii ba muy gone gu ndaw la ñëw ci daara ji di ànd ak ñun musta guddee àll nga ne lu tax mu guddee àll musuñu ko woo fenn nga ne lu tax nu woo ko fu ñu ko yóbbu fu ñu ko jëmee lijjanti woo ko xooloo ko ndax doy loo nga noo kon loolu ni nga lay ñaanal ay magam ñoom ñëpp ñoom soxna yaasin caw ak ñoom nday caw ak sili sili caw ñoom ñëpp rek bàyyiwul kenn sant na ñëpp gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon bu ko defee rek ñun ñëpp nañu lu jàng fatiha jàng fukki xul wala waxat ak benn ak baytu xasida bu waaye man yónni ko soxna Ami Njaay ñaan sunu borom dolli ko yërmaande ak njëggal ci barke borom tubaab àdduna waaye nga nekk fa ak yaayam saa su ndeyam gëstoo yow lay gis te ñun xam nañ ci dara jigéen nag bu góor góorgóorloo ci kër ne fa di góorgóorloo dara jomb ko ci kër ga dara dara jomb ko ci kër ga yu baax yi yëpp des na yeneen yu ba yu ba yeneen yu baax yu ñëw yoo xam ne sab cër la barke Sëñ Tuubaa waaw man nag damaa boole gémmantoog sonn sama mënu mënu maa wax waaye fii ne dama doon jéem rek di barkeelu waaw ndax mënut a ñàkk liñ fi wax ci xasaayit ñu jox ko seen wax ko waridwanin bila saxatin musaadili min bani daymaan ansaara جل جليلا سرسر خد خصدو زيارة الفارخ داريني داريني أو شارع الجليلا سرسر خد خصدو زيارة الفارخ زيارة الفارخ دريني دريني دريني أو شارع ذات الفرح دريني دريني أو شارع هنا نزلت يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم باسم الله شريكه biisu bi isni man laysa lahu shariku ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana dabir lana birasuman barasani birasuman yubarisul muntaqiman barisaman إذا تلبت من إلهي جلبا وإن سألت بإلهي سلبا لجاد بتوحيد ربي الأحد وزاد لي بقل هو الله بقل هو الله أحد تبع شيخ الخدم بكي كو جسمي فنكي بايب سرين سالي وتخمي جنكي أنا تبع koo gis muy funki ay sunu sëriñ borom màggal gi moo tax muy junki ni moo tekki ni moo tekki ba noppi tekki tànk yéen tënk bàmba borom tuba budul ko nag yow senegal ku fi def ñaari gaal yow yaa tax ba jumaa yeeg jàkk yaa nanu gëm te jébbalu ay borom tuba borom njaarim seyxinal xadiimi moodu mbake bari seex ahmadu bamba xaadimal mustafa xayril xadimi xayril xaakimi sunu jàmbar a tuba borom jumaa ju mag ji borom kaymil bi borom fulku bi borom barak bi borom jom ji borom magal gu mag gi borom yore yu weexi loxo ca kaw ñu magal xaadim rasul seexul xadim bakat borom tuba ay borom tuba yow samay gi bayib sëriñ saaliw xanaa gabon nga ko ngoore gile may sax gile may xanaa aras nga ko jiine xanaa aras ko jiine ba nga tekkee si ami may ya fa jaarim cara ba wal naat ba na wati kajoor ba nga tekkee si ami may ya fa jur dal cara mbaaxaan jalaaxe ak njoxumbare yàlla yàlla sogoot yow yàllaay sagoo yow yàllaay sagoo Seexul Xadim Mbakke ku sagoo Seexul Xadim jugal taxaw te wax wax jër jërëjëf borom Tuuba ku sagoo Seexul Xadim jugal taxaw wax jërëjëf borom Tuuba ku sagoo Seexul Xadim Mbakke jugal taxaw wax jërëjëf borom Tuuba yow yàllaay sagoo yow la yàllaay sagoo yow la yàllaay sagoo yow la yàllaay sagoo ay borom Tuuba Mbakke yow la yàllaay sagoo ci mbooleem ñi fi jaaroon géej wax sax malaaka yépp a ko seere malaaka yépp yépp yépp ko seere Seexul Xaddim Mbàkke borom Tuubaa sëriñam sëriñ ma sàmba juróom-ñaari kaale ya la dund woon ci Seexul Xaddim borom juróom-ñaari kaale yi saf borom Tuubaa fu ñu jëleeti kuy rëy sëriñ bu mag bi tey tomb tombam mi ginnaaw sëriñ ma sàmba Mbàkke jërë ngeen jëf waaw gilem sax daa xaju ci wàññi te damaa sonn lool nit ñi kenn moomu leen gis na man man mi toog di wax nii barke Seexul Xaddim Cees gi ko mu ëpp fit yow yow woo fi ku yaakaar nag moom moo ma ëpp fit mën na fee ne yor aw ma ñam yaakaar ne moom ëpp fit mën na ne waaye man <laughs> Sëñ Tuubaa li ma tuddee directement te Cheikh Abdou Khadir doomam mooma mooma uftu ma bàyyam tax mu def ci man loo xam ni xadim yi xam ne ne maa mu fit ko <laughs> barke Seexul <coughs> lu Mbàkke day waxtaan ak man lu baree bare léeg am ko ci waxtaan man ma ne ko déedéet muy maa ngi ñu bokk Sëñ Tuubaa rek <laughs> Sëñ Tuubaa yi moom Sëñ Tuubaa képp la kenn du moom Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa képp la ñun ñëpp ay taalibe lañ mooy xeetali jàmm ñi ku yaakaar ne yaay xeetali kenn rek toogal gaa yi woowuñu la <laughs> gaa yi Sëñ Tuubaa noonu yaakaar ne ma noonu wóoru de <laughs> yàlla nañu pam jàmm jërë ngeen di di ziar bu baax man bi ma ñëwee ci dëkk bi léegi am mbuus laa gàddu woon waaye su ma doon génn fi ne ay camion laay gaare yàgg naa fi am naa yu ma fi dajale yu bari yàgg naa ci dëkk bi waaye bi may ñëw ci dëkk bii ñoom ñaar laa fekke te bari na lu muy dox moom Ousseynou mais si xaalis sumaare mi moo koy doxal na lu muy bu ko woowee suñu bu ko woowee suñu xaalis sumaare mi mi wax ko nam ko bëggee noonu la koy amee. moo tax lii mu def noonu rek la mën a def ndax moo Xaadim Soumaré du ñu ñaar kenn képp képp képp nan te bu daje buñ fa dajeewoon naan sëñ Ousseynou Ndiaye sëñ Xaadim Soumaré kon day mel ni ñaar la moo tax lii mu def nii man sax damaa yokkaat xaal ci jëmmam waaye damaa yaakaar ne amut solo waaye te jii laa xam ne nag te moom ku bari solo la moom ku doy waar la fi mu fël daa garaaw yàlla na yàlla doole sa jàmm barkeb Cheikhul Khadim tey moom gëm naa la moom tey moom dama laa gëm da dugal bii lii daa garaaw boobu de man ko xalaat ne xool aussi nu mu def ndax bu doon man kàjj mi ni ngi doon doon sama xel ma ñëw toog ñu xóot sama xel du dem ci yooyu waaye dangaa dugal bii bu garaaw a garaaw yàlla na yàlla defal la tawféex barke Sëñ Tuubaa بودادي لك سكري بجنة بلدان ودادي أنا ترابي وكنت لبي ودادا لا لا لا لك سكري لجنة بمدادا أنت لي وكنت لي بلدان لك شكري لجنة برداد أنت ربي وكنت لي بودادا لا لا لا لك شكري لجنة بمدادا أنت ربي وكنت لي برداد لي لك شكري لجنة بردانا أنا ترابي وكنت لي بودادا لا لا لا لا وزغرا لجنة بمدادا أنا ترابي وكنت لي بودادا عبادي لك شكري لجنة بمدادي لك كل أزل بخزى بخاين لا إله إلا الله وجن منك سرمدا يا همام الديا أنت ربي وكنت لي بلدادي لك شكري لجنة بلدادي لك تكل يا زلب خزا بخاينا لا لا لا لا من كزا شاهي ما غدايا أنت ربي وكنت لي شكري على جميع حلال وهولي لجنة زازة دغدا وكنت لي بالوداد بالوداد لك سكر لجنة بالوداد لك كل يا سرب قصب خاين لا إله إلا الله وطن من كسر مدن يا هماد كلامي وكنت لي بالوداد بالوداد لك سكري بجنة بالوداد لا تقل يا زلب قزا بخاين لا إله إلا الله جن الكسر مدن يا همام خرجاكم من la sindamaaru bamba jaar noonu yàlla jaara fil bari wal bari wanaa la daara saytaane banneex bakkan ak duniyaa leen fetal daane nga noon yu bon ya bamba jaar ñoom jaadu nafsi boobee sëriñ saa ngi fi ab xataltu fil baxri la wax saytaana kabkaboo xayral wara lawtaana nongol bangaase ba xeex ca geer ba nu roowul ak siwiñ bisu payoor booba man wajjir fi sabilillahi moot maa ko yóbbu foofa doona màggal ga xam ni seex bàmbaar yel demam nga taarix ba a ma jey sa sin mooy ma li mu sëriñ Basiiru Mbakke mbég ma ne la yàlla defaloon kalima fi def riki defal ko Ibrahima ba buur bi yàlla faratal tabaski ak tam xarit may na ko gaay Mbakke bi xidmatil xadimi lil maqdumi fil barri farlu leen ila taqsimi la daam weesar ci yoonu